ardo Gambian talents yo bula ardo Gambian talents ko ardo alalio eh eh alalio oh alalio eh eh alalio alalio eh eh alalio oh alalio اي على اليوم تي في تربي اي واي تربي تربي ادم من داي تربي غامبيا يتلم تربي اييا تربي اي واي تربي تربي غامبيا كلن من داي تربي اي واي يتلم تربي اييا تربي واو واو تربي تربي غامبيا كلن تربي اها تربي تربي اييا تربي اي واي تربي تربي اه غامبيا كلن تربي تشيلي في تلم تربي اييا you smile is terrible. Terrible, terrible. When you dance is terrible. Terrible, terrible. Fall in love is terrible. Terrible, terrible. Happiness is terrible. Terrible, terrible. No, no, go back. Hey, hey. Nchi kongi dabu. Hey, Bye, dara museda. Ah, ah. Nigi talk dileka yasa. Uh, nakala. eh, awa. Ah, uh-uh. Eh, nyingi tivi Gambian talent. Eh, television. Eh, yeah, dile nyanga. Nyingi Gambian. TV. Yeah. Setan ko selanjila. day gën a neex. asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan asalaamaaleykum dalalaat leen fii si Gambian Talents TV si seen entertainment show bi man wax naa leen yëfi entertainment rek laay yëngu lu am pour def ak music lu am pour def ak comédie ay fecc ak lu mu mënti doon mu am pour def ak entertainment rek man dinaa ko ñëw ak yéen pour la ardo show lañu wax nag moo tax euh, dafay nekk loo xamante ne lu xarañ la man na soo pula jéeri borom nag ak meew nekk South ma koy bamtal wax ma South Square la Ah, si yaay ak si baay ma toog ak ay ndaanaan nar a ñëw xuus ak yéen tey doon Valentine may wis yéen di seetaan ñëpp happy Valentine doo fàtte fàtte sama mi ma jàkkaarloo di nuyu ñëpp di daral ñëpp fii si Gambian Talents TV di leen wax ne tey ay ndaanaan si biir ndaanaan laa toogal waaye ñuy nuyoo dañuy nuyoo nuyu faramaaren duñu egg si nuyoo ne salaamaaleykum yem ci déedéet dama bëgg mu tàng ndax wax naa leen fii lu fi xew lu ne dama koy daganal dinaa taxaw ne leen dagan loo xam ne dafa am pour musique am pour def ak entertainment dama koy daganal ma toog ak ay ndaanan ñu jógee Banjul ñi nga xamante ni ñu xarañ dañ fu ñu jóg rek nit ñi kontaan Gambie yëpp bëgg Gambia Talents nag Gambia moo leen tax a jóg Gambia moo ñu ñor lu am suñu dëkk bi moo ñu ñor moo taxit chaque jour fu ñu mën ci toll rek dañuy def lu xamante ne dina tax suñ Gambien si lu ñu am Gambia dina dem to an next moo tax ñu ne Gambian Talents so balaa ñëw dem fenn ma toog ki ñuy euh, ñii di slam jógee ba Banjul balaa may dem ak ñoom fenn dama bugg ñëw fumbal fii wane ñoom ay ndaanaan lañ wane ay faramaareen lañ ñu wane lañu mën man noonu laa ko bëggee na affaire si xumb ñu xam entertainment lañ wax ba pare ngeen doog a wa askan bi yéen fi nekk aywa xam nga tey valentine This is love, true love, my valentine. This is love, true love, since a long time. This is love, true love my Valentine. This is love, true love, since a long time. Well, without your love, me can live another life. Me there by your side, you make me satisfied. Number one in my life, you take me higher heights. You give me a lot of love, you are hold you tight, squeeze you right, give you more love through the whole night. You are hold you tight, squeeze you right. Give you my love through the whole night. This is love through love, my Valentine. This is love through love since a long time. This is love through love, my Valentine. This is love true love since a long time. ay loolu ab ah, coppati la woon. <laughs> asalaamaaleykum Gambia ñu ngi leen di nuyoo ku si nekk santa di leen wan ne seen xarit seen doom mi ndey di caat jógee si ji Banjul CHDTT mooy nuyoo one love big love. di Gambia di mbokki Gambia yi nga xam ñu ci internet bi right now Instagram YouTube Facebook di topp Gambian Talents di topp ak slam ji ñu ngi leen ziar ndax yéen a di ñu te da ngeen ah. ziar na leen bu baax. yena toté toog tey di ñu seetaan ngeen dégg Omar wax ko ngeen ñu agam ak am volontaire té nek volontaire bi ñu jël woy bi diko may yépp diko dédiquer ñepp ñi nga xamante ne ñu ñoy sétan ñu ko ci biir tay ma laaj suma premier woy wax nga ñu ne yow yaay chat si tiit bañ ko be spelal ñu ko ñu lay jaajëfal ci côté boobu mu na am sama mas gi dina si am am touti problème way chat yow da nga da nga joggé si askano faramaate waaw ñun euh, li nga bañ soo ko doonee dafa fekk nga bañ ci nga gën see ñaaw daal loolu la olof njaay wax so man euh, si yax bu dijja laa bokk biir Gambie fii so te yax bu dijja boobu noonu nga feeñee baañul waaye di mbayeen famille bi foofu la suma yaay jógee suma papa tamit foofu la jógee so da ngaa gis ne doomi géwér pire la doomi géwér pire la so lo tax mané li nga bañ soko ko eh, li nga doon soko ko dafa fekk nga gën see ñaaw so ñi nga dégg su Ndour bu ñëk ba ñu daan ñëw Banjul gam Banjul di ñëw di di déglu ci ay wëy o oh, di déglu ci di sàcca paay sen instrumental ni comme di déglu daal pour bugg a ñoo nga ni kisso soo dara fo ngay dem fu mu nekké nga dem di déglu pour am mo experience so ci suma mbokk yi la daan ñëw ci suma toomaay ya ci suma daat si ni ñom Siix Mbay ñoo xam légui dama dee dem di waxtaan ñoom ñu ma wax demba so dereti ngéwél moy daw ci suma yaram so ma ngi ciy bëgg bu baax a baax cey lii. ah mooy nga ne dërët ngéwél mooy dox sa yaram bi dërët ngéwél mooy bi moo waral nga dugg si musique wala dafa am loo xamante ne moo la gën a inspire wala nit nga gis lu muy def mu neex ko mu gën a tax nga dugg ci wala nu mu demee. waaw affaire musique bi nag ah, xaloon naa fa ne suma saay tuuti depuis bu ma nekkee woon time ndaw because of like suma maamati maame ñi defoon nañ ay events yoo xam ne nii xaw ma ko woon waaye dama bokkoon benn xarit. Ah, classe ku ñëw wax Ousmane ah, kii Samba Dia magam di woy njëkkama jiitu si woy si time boobu noonu time yi ñoom masla bi time yi ñoom penca bi ñoom fugitive ci la booy boobu door mu gis ma suma yëngatu yëngatu xam nga soo doonee dara rek gis ma suma yëngatu yëngatu rek soo si la ma ko mu ne ma caag dama bëgg a pour ñu woy ma ne ko amul benn problème mën naa ci duggee dafeekat deret baax ci waaw loolu moo la inspiré. moom moom si Seydina Omar Seydina Omar yow dama bëggoon a xam yow sa sa famille sa kër ndax dafa am uh, dara pour def ak ay faramaareen dafa am ko fu mu sa wuyi sa yaay sa papa wala sa waaw ah, soo ko suma doom bàyyi wax dëgg ndax man waaw am it's a nice question doom man yàlla def na jógewuma ci famille boo xam ne dañoo def uh, musique or amber ground gewel or something create which is um, man music okay dafa happen dafa just happen because come, I'm gonna sa surrounding mun na inspire te comme ni ko caat waxee ki nga xam ne slang di Ousmane Dia ñu ngi ko nuyu kung mooy ki nga xam ne next door neighbors so te dama daan jegeñante tiyang bu baax a baax leen a xewoon na mooy comme déglu music moom loolu man amoon naa problème boo xam ne képp ku bugg a musique bu ees si suñ soraanee ci moom ngaa ñëw déglu musique moom moom moom dañ ko daan déglu te externe boo xam ne ku bëggoon musique bu ees si hip hop wala wala Jamaica di nga ñëw suma suma brother pour mu faj ci lañ emoon waaye Ousmane Niang was that somebody boo ne moom ni ma jegeñantee moom muy def musique yaa te te may fekkee lu bari ci ci ci li moo def ci biir musique so loolu daf loolu ma easily dugal ci mbiri bot suma famille kenn defut musique ku mës a def musique si suma famille man ak suma benn cousine la moom bu ñu UK right now moom si benn groupe la nekkoon bu ñoo ooyee um, Exodus ñu ñëwoon ci Tistown ñu ñaar ka mës a def musique but man suma famille am um, suñ focus was very different from am doing music waaye at the end day xam nga rek lu neex danga koo dooree di ko di ko foyee at the end of the day mu tontu bi a noble profession boo xam ne yow you can take it as a career waaw yow si sa biir wax nga ne yow sa famille euh, kenn wëyut nga jógewul si askanu Faramareen ñu gis la ngay wëy euh, ñu gis la ngay def loo xarañ tamit ma bëggoon a xam yow lan moo la inspire lu la duggal si musique waaw mooy comme li ma wax rek comme que euh, bëggoon naa musique ci ko déglu nekkoon naa wax ne tamit déglukat déglukat laa ok ba tamit man am dëkkanoor boo xam ne moom mooy ki nga xam ne moo sos silaan bi di Ousmane Dia you understand because comme ñun family liñ xam school young, xam we are all graduates School, xam suma family xam suma brother yi we are just so xam nga in schooling and whatever xam so come loolu mooy si luñ gën focus on but it wasn't easy for ma def music because family bi appreciate luñ ko in the beginning but as time goes on xam they start falling in love with the ba pare gis ne comme kii mu ngi see dedicate boppam si la gars yi and I was good to go. But Usman Jamoy inspired because of how many jagged he def dara. Now if you training session and everything, how many of them play my hand and you need like to do That's it. Depending what you do, you do this. Come, you say it now, my brother. Ah, I'm gonna take a lot of together. Tell me now, def. su sabar tegee rek ñun ñëppay ñëw dégga soo dégga boobu noonu daf day indi feeling ba tax na sax ñu bari dañ ci bokkoon sax waaye moom lu la wax moo ci gënoon a fees seen dëkkandoo loolu tax affaire yi mu dugg ne dañ daan toog ñu ne neen di waxtaan di dégluwaare xam nga di bugg a jàllale yenn message yoo xam ne nii comme ñu ne neen suñoo waxtaan booy bàyyi ñi defal lii ñu gis ne musique tamit suñ ci duggee tamit di ko wëy tamit di ci kaf dinañ ci mun a advice people bi tamit ñoo xam ne tamit jaarut yoon soo ñu gis ne tamit loolu tamit dina tamit suñu mag yi tamit démb noonu lañ meloon su payi daan am problème dañ leen daan yóbbu si jaaka yi jubóole leen lu nekk si jaaka yi lu nekk soo ñu yooyu noonu soo ñu gis ne daal xaar ñu dugg si musique bi a yu ñu war a jàllale daal di lañ ko jàllale si société bi yu mel ni maa si ñoom su gadda yooyu noonu rek xam nga bàyyi xale bi mu dem tëbi ah, boobu dinañ dugg si sugar daddy dinañ delluwaat si sugar daddy ndax sugar daddy def na fi lu bëri ma delluwaat si caat caat um, ñu gis um, si suñ génération buñ nekk nii ñu gis si life buñ nekk nii soo jógee si famille faramaare nga jógee si am ngéwél yaa yëfi jàng du nekk loo xamante ne danga koy jël mu sérieux dangay yaakaar ne daal mu nekk rek musique la nga dugg si dem woy nit ñi di ko waxantoo rek nga jëlee ko noonu so dafa mel ni um, géwél daal ñu dund si famille géwél jëluñ éducation uh, mu nekk loo xamante ne lu sérieux la ñu wax ñu si dara ba pare nga wax ñu yow sa educational uh, bare uh, background daal. waaw xam nga education moom is the key of everything so nit ki lu mu nga nekk da nga war a jàng te jàng emut si benn jàng emut si dugga school gi si daara gi toog di waxtaan ak mag yi dem leen loolu yëpp part of education la. dañ ne ñun doomi géwél yàlla daf ñu dénkal loo xam ne dañ dee juddu rek affaire yi nekk si suñu deret woy di nekka si suñ deret. xëy na suñ taxawee sab rek ñu bëri dinañu déglu su bàyyi la daan xappun mag yëpp duñ daan mën a wax ifin président bi ni jóge fi bu yàggul nii sax seen tig su ma mag nu la daan def dafa am leen loo xam ne yàlla leen leen ko dénk comme deret bi suñ taxawee yuuxu yow doo ko mun ñun rekk a koo mun so ñëpp la leen mën a déglu ba pare teg si ñoom jànguñ jànga yooyu noonu comme noo ko de waxee waaye génération bi tey nii géwél yu bëri ñu ngi si in school ni jànga waaye in na back in the days xaatoon na time yi ñoom Malfa ak yooyu noonu ba ñoom suñu time grabe na school dëgg la ñun suñu jàng soriwul toon madinam because of poor family bi xam nga waaye education is good pour ñun ñëpp ñu jàng ko te ba léegi sax ñu ngee gëstu di ko dee dénka bu ma laa wax ni mooy danga dee judduwaale rek comme li ngaa dégg juddu mun football wala juddu mun dara ko fenn just gifted na so ñun la ñu yàlla ba ñu a toog di fàttaliku sa juróomi maami démba sa sebin maami démba di la tagga so lii la ñu yàlla may bu baax a baax a baax ñu ngi leen di forcer jàng bi parce que fu mu nekk nii xam nga génération bi bi taw laa ni waaye daal affaire yi géwél ak jàng moom nii la dee demee speed ba leen dee duga ñeenay bàyyi ne gis nañ ne mun nañ koo def taw di laneen bi waaye ñeneen ñi gis na yee xaaral ñu àndasee laa ngeen laneen bi gën a yokk xam-xam daal because of da war a am pour laan moo koy ñuy seetaan ñu fàttali leen ne yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV ñi nga xamante ne fu ñu toll dañuy bëgg a dab seen i bànne ñun wax nañ leen ne seen i bët la ñuy xoolee seen i tànk la ñuy doxee ak seen lépp la ñuy use loo xamante ne am na pour defar askan bi rek ñun moom la ñuy demee moo tax ñu ne Gambian Talents ma toog ak waa Islam ji ndaanaan yi Banjul yi ma toog ak ñoom fii si studio yi biir Gambian Talents TV ma ñëw si Seydina sëñ Omar bëggoon naa nga wax ñu yow what is your relationship with kooku ñuy wax uh, Ousmane waaw Ousmane comme ni ma ko waxee in the beginning um, suñ kër yaa def nii benn fenn nekk koo xam ne suma ay xariti mag lañ because of Ousmane yaayam ak man suma yaay dañ bokkoon classe si Francis School bu nekkoon Banjul those days. Ousmane Dia suñu relationship was very ñu ngi wax démb si guddi rek maa ngi nuyu jaabile système bi because mu mu mu ma xool waxtaan démb si guddi rek di ko welcome moom jaabile moom dafa nekk ko xam ne néegu gi ñu doonoon Ousmane Dia dafa nekk ko xam ne daf lim ñu ma jàngal dafa bari dafa nekkoon ko xam ne he was a smart guy a smart guy boo xam ne ku am ambition because kooku man li li li nekkoon ci moom. te Gambien si war koo njëriñoo xam na dafa dem ba gis ne ok du musée rek laa war a mun a def pour suma affaire génn créer na ak groupe bàyyee ñu ko ba fi mu nekk mu ci leneen loo xam ne style is is is is um, loo xam ne Gambien si see mun a survive Ousmane Dia lim lim def ci ñun dafa bari because relationship bi was like xam nga dafa mel nii dañ bokkoon deret because of dëkkandoor bu yaakaar. made a fence. because of um, there was no no no no difference dañoo añ seen kër muy añ suñ kër suñ eewoo suba si moom dañoo nekka waxtaan bi nii xam nga so suma Dia was everything to us really because relationship bi dañ ko fekk foofu turu waajur yi. so ñun ñëw continuer loolu. Mm-hmm. Mm-hmm. let's save it let's save the environment let's save it let's save our nature let's save it let's save the environment let's save it let sevane coo yóbbu taal alla be yaa ngi yaxte waru laa yóbbu taal alla be yaa ngi yaxte waru laa yóbbu taxaw wakka seben si mbedd bi loolu ñaw na xam ne loolu du fa jot seben mu ngi nii di yàq dëkk dëkk bi ah Let's save it. Let's save the environment. Let's save it. Let's save nature. Let's save it. Let's save the environment. Let's save it. Let's save nature. Let's save let's save our environment let's save <laughs> waaw woy bii nag woy bu yàgg la xam nga rek yow xam naa ne soo gisee nga wax waxi environment ñu wax la tuuti ci about woy bi xam naa ne ñu woy bi euh, moom la salaam ji njëkk a génnee. time yi back in the days mooy bu ñoo woowee Ousmane Dia mooy bu la ah, Seydina Omar. first hit of Salaam ministère. so woy bi moo njëkk a hit ba pare ñu feature si Sambou Suso woy about environment mooy lu ma la doon wax rek. Banjul a nga daan tooga suñu mag yi la gis koo xam ne ni mu ngi jógee outside di lekk jël dara sànni Ousmane Dia si boppam moo ñu wane hey demal nga for léeg-léeg ma ne ko man naka laa ko foree te man sànniwu ma ko fa mu ne ma demal nga for ko so daf mooy lu mu laa wax lu mu dugal ci ñun nekkul ne musique bi la rek yan na gis ay yenn dati things yoo xam ne ne di su ñëwee si dëkka xam du war a romb dëkk bi de xëy so loolu ñaaw si ñun soo mën a ñu nañ create about environment wéy ko noonu lañ seetee ba ci biir environnement wéy ko gis si àll gi gis si dëkkandoor yi xam nga gis xam nga punda gi tamit ñu boolee ko wéy ko waa en national environnement dégg nga wéy gi apprécier ko bu baax par yàlla def gaa jox ñu si certificat ba pare jox ñu si COP ba pare xam nga time bu gaa jox ñu si like thousand dollars <laughs> it was very big nag thousand dollars boobu noonu xam nga boobu jamono nag xam nga thousand daal mooy lu bari la woon daal so ñu ngi leen di gërëm ñu mi tamit gaa yi national um, um, environnement bi merci xam nga su amee luñ cee tool seen seen dega ngangane ah, nit ñew lekk sani wala nit taxaw ci mbedd bi seben mu nekk lo xamantene rafetul ya ya lu ñaaw la waye lu bari la tamit da ngay ya gis eh, si yu bari nga dem ci ah, spécialiste gaar yi jeki jeki rek nga gis ku taxaw di seben ci wall bi or so on yeen bu ngeen wëyé seen environment bi ban changes la def ci dëkk bi waaw xam nga like ñun moom caaxaan taxu ñoo takku jóg because of mooy oustaz lañ door rek di téye mic rek di wëy pour mun a message bi pour nit yi mun koo dégg understand affaire yi waaye da gis ne xëy na like buñ ko wéyee su doon 100 percent da ngaa ne like 50 percent bi xal nañoo bàyyi because of xaab yëpp xam nañ caat islam yi ñu ngi koo gis soo caata ngi wéy ne bul seben benn bi soo dinañ lu sax taxaw seben waaye xëy na ñeneen yi moom dinañ ko def laaj comme suga dadi bi rek buñ ko wéyee yàlla def na tamit ñu bari bàyyi nañ waaye xëy na léegi léegi mu ngeen di yokku daal xam nga waaye ñun noonu lañ mel daal tool gis loo xam ne nii mu jaaduwul ci société bi ñu blow up ko ba pare def ko ci important ci biir dëkk is very important because of tamit foofu noonu la wérgu yaram bi war a jógee xam nga di tuur mbalit yi si gannaaw kër yi cause mosquitoes xam nga feebar yu sew yi yooyu gan war a ñëw xam nga di taal àll bi rab di daw xam nga di dog guy yi soo di mun a am taw soo loolu yëpp dañ ko war a bàyyi xel tamit xam nga suñu environnement bi mu clean ñuy set setal set setal lu important la ñun ba lañ ko woy fekk Gambia duñ daan def set setal every xaw ma end of month waaye after ñu toog dégg ko ñu kontaan ñu ne ah, comme que ñun ñoo fi njëkk a door woy lu mel taw dégg yu mel nii ne government bi ngay woy seet seetal dañ ci kontaan bu baax a baax di ko sax dafa aar suñ dund daal waaw. ñoo ko dégg noonu mu ne loolu dafa aar suñ dund ma toog ak suma doom baay bul mer day caat. waaw waaw ak ñi kay moom tey suñ sowee ni ñoo moom fii tey. Oh. Ah, ma ñëw si yow sama doom baay bi ma laaj la. bu ngeen doon woy environment ngeen gis woy bi environment mu nekk li nga xamante ne boo ko waxee du ñu bëri ñoo si am interest suma maas yi nga woyal ma woy yi mbëggeel oh, hmm. yeneen woy moom may gën a interest foogu leen ne woy bi bi ngeen ko woyee was it not boring waaw gis nga music yàlla daf ñu dimbalee comme Ousmane Diop comme ni ma la waxee mbiram rek he was such a smart guy man time boobu bi affaire bi di génn nekkaguma ci groupe bi sax but I know everything you understand but dangaa gis ne um, ci li ñu waxtaan it's like ok because time boobu dem nañ ba door di jël music as a profession boo xam ne dafa noble torop pour ñu mun a door di isi lyrics because Ousmane Diaw was that somebody boo xam ne comme mu a wëyantu lépp lu moo wëy dafa nit pour am sense it has to teach and society moom he was that type of person Most of him come up with this idea of um, song called Let's Save It. It was a boom because of little mooy ok dafa nekk loo xam ne dafa jaaxal nit ñi in the sense of marat yu bari da nga dee dox gis na maraaj bi daanu na lu ko daaneel seben hmm. yaa ngi saan koñ yu bari da fa laaxa gis pax mu ni mënut ndox bi because of lan mbalit bu buñ fa cookee ba nga notin kan move dafaa dem ba wow sax wow boobu noonu mun na nit mun na koo forcer yëkkati ko dóor la ko mu nekk xeex so euh, environment bi was that that ba nga xam ne ok li ñoo bugg a def gis nañ ne ok lii gis nañ ne dafa tilim but there is a solution of lan doon a musician am the idea of why not we do this music am a song called let's save moo tax song bi bu mu ñëwee it wasn't boring because of ok jamono boobu noonu ñu bari ñu doon woy ci mbëggeel dafa amoon ay ay am type of am lyrics yu doon dem on those days love songs xam nga or song about war but Slam di ñëw with a song called let's save it which was very different from lu nit ñi doon miin di dégga mm-hmm. so dafa outstanding on torop because of fi yaa nga def mu am ay des SCCs euh, Sambou it was very nice because Sambou Soso mu ngi nekkoon koo xam ne ñëpp ko xam ci Manding so bi nga ko ci isee nag affaire bi gën a am that that that color of variety bi nga xam ne Sambou isee na ko ci so moo tax bi song bi ñëwee yàlla dafa def am um, NEA which is National Environment Agency ñu jot ci mbiri so biñ ci jotee it it was like an sensitization because of gis nañu ok Solaare bi a music group ñu ngi xeex pour advocacy xam and synthesize the people about um, keeping the environment clean so moo tax uh, salaam ji dañ ci amoon that award of bi Dewa, which was a tape and a money and a certificate boo xam ne dafa baabi something because of uh, environment agency advocate like a certificate We want to know. ok ñii a music group lañ buy xeex xam nga tilim ci dëkk bi buy xeex pour make sure ne dañu war a seetal dëkk bi kon loolu was a great achievement moo tax song bi was a boom really because of fii salaam ji one moment Bobo can gain fa woon yeah fëggaay ñu ne fëslam si génnee woon kenn eh, kenn génn fa woon tey nag mu nekk ba si rax man gis naa ne fan yii moom rax moo xew ku ñëw kii fële si ak bosam ñëw def ko nu mu ko neexee sama doom baay fële su ma la teeroon a yëg doom baay ñu affaire dañ doon assommé ma ne ma rax <laughs> ah <laughs> ku ñëw rek rax ñëw toog su ma teeroon a yëg billaay tee ma rax ah ok benn yi ñu dugg si biir ñu fàttale leen yéen a ngi seetaan Gambian Talents ah, TV ah, mun ngeen ñoo toppa si suñ Facebook page bi ngeen like suñ Facebook page bi at the same time mun ngeen ñoo toppa si suñ YouTube page bi ngeen subscribe fa ah, ñu ñu nekkal fii nii ak waa Slam di benn ma laaj leen Thiat mm-hmm. yow bu Ousmane génnee Slam di ndax affecté leen si benn boor waaw Ousmane Dia non bu génnee Slam di ne like si doorin bi like moom bu ñu miinaloon mbir bi ñu toog ndeyam bi la ba si boppam ne dafa bàyyi so da ngaa gis ne xaloon nañu jël tuuti filin ni am na kenn ci biir ku génn si ñu so ñu fiil ko trop ne am nañ mis reetaan ñu doon misante moom waaye ñu gis ne moom tamit ba léegi bàyyi ñu daf ñu daf ñu dafa génn si mbir bi ba pare ñu mbir bi ba pare tamit di toog di waxtaan ñun di ñu advice so dafa mel ni ba léegi mu ci woon ba pare tamit ñu ko bàyyee mu ngi doonoon mooy man maa seetlu na ko xale yu xarañ so tamit am us ah, Buba Cee tamit si long side yi tamit magami tamit su dëkkandoor leen daal so moom ba gis ne moom musique bi am na la yam na ye feneen fu yàlla yóbbu si musique bi fu foofu oo taajal ma mbir bi man ko Seydina Omar tamit ñooñu def ko tuddee daal waaye daal dem nañ bi gis ne a yóbbu ak jom ak liggéey gëm ca boppa waaw waaye si beginning bi doore bi xam nga ñooy Ousmane Jabaay na moo ko door booy bi naka la nag ah mu ne suma rak am leen fi def nga time yi dóor rek xam nga because of musique bi ñu dañ ko yaroo door loolu tax ngay toog di dégg ne slam ji yaay bu ñëw woy seen lii bu ñëw woy seen lii ñun dañ nekk in primary school di woy loolu tax slam ji yàgg ci kanami bëti waaw. kon dafa mel ni daal affaire si dëgër fit la. ngay dëgër fit bu mag sax soo leen bëggee dem rek da ngeen a dëgër fit. ak gëm sax ah? yu bii nii la nii laa koy defee te dinaa ko am. waaw waaw parce que suñu papa yi démb tamit seen ting dañ daan takka jabar tamit dara kuulut waaye dañ gëm ne dina kuul te léegi ñoo am seen ñu mag soo ñun gëm-gëm boobu rek lañ am pare affaire yi bi nga doon laajee fi Seydina Omar ma dolli ci tuuti affaire yi dafa am ñeneen ñoo xam ne nii musique suñ koo déglu ñoom rëngin rëngin rëngin rëngin rëngin rek la ñoo déglu na neex am na ñeneen ñoo xam ne ñoom eetee moo tax ñuy taal seen radio di déglu musique because of ñu ngi blind mënuñoo déglu waare mënuñoo am kenn ku leen xamal soo suñ toogee dégg ne e yow xale bi bàyyil dox guddi oo oh, bàyyil li ngaa def nii oo oh, day nuyu sax yaay jox ko cër yaay góor la nii nii kooku dina concentré because of amul Ustaz bu ko waare so next ñu li ñoo si oustaz yi moom la ñoo ñëw buloo dama si yaa maa njëkkalantu di duga si suma biir yeneen questions yi di ma jaay gaaw pour rek waaw amul problème di nga ma fi fekk non tàkkaan la you know what I'm saying ci Gambian talent you know what I'm saying Yo ne <laughs> man janax day pax xam record label ngeen bokk slam ji fu mu nekk nii records wow waaye da ngaa gis ne right now ni anyone ku bugg a jooba you highly welcome yeah ñu ngi émotion di lalal faram fàcceel like suñu level bu ees buñ create ours waaye salaam yi ñoom ñu free so free and happy yeah and gorgeous and uh, naka laa ko mën a sax uh, di daagu daal ni ñu neexee daal di terebe terebe di yabaate so ñu ngi welcome anyone ku set loxo nga ñëw buga a salam di ji comme ni rek ñu jëmaa waaw ah, benn tey ma bëggoon nga wax ñu ah, yéen about eh, tuuti about ah, Jollof Arts. waaw Jollof Arts moom eh, dañ mooy eh, label bu ñu signoon contrat mooy slam ji before Jollof Arts ñun la woon slam ji di defal suñu boppa after ñu dem ba ci mbir bi gis ne suñu mag yi nekk si biir koñ geeg ak koto bi di sool gars yi nekk di ànd together soo mu ne ñu daal dañ bëgg a sign noonu lañ sign ñu demamoon ba ci digg bi. waaw ñu gis ne daal dañu war a gën delluwaat gannaaw rihab comme laaj moom biddiw bu bees lay def noonu toog rek ñëw génnaat noonu lañ demee tamit ne contrat bi bu pare nga ñëwaataat a ah, ma dellu si suma doom baay bi question bi si suma bu doom baay lay dem ndax moom la toogal fii ñaari soo lañ fi am soo square laa war a dafa <laughs> mel ni ak ko triple <laughs> am yow dama bëggoon a xam yëg naa ne da ngeen tukki woon si su gëstu bu ndaw bi nga def da ngeen tukki woon tukki da tukki dem England fa loolu nu demee seen dem tukki bi for the first time ngeen dem England affaire yi nu mu because lu salaam di liggéey la tamit wax dëgg salaam ji yàlla dafa def ñu liggéey ba yàlla def ñu war a tukki xam nga li ñuy sol fraise xam nga. ci question bu nice boobu because of um, Salanji tukki na ànd ak ay yeneen Gambian artistes we got two Smalls Nana Jalimadi um, them in them, and it was a nice gesture because come, fan ci dem di nekk and it was a great experience for them. Definitely, def li ñu war a def ñëpp si waat xam um, nga lu jafe ci Gambia xam nga but xewoon and it was nice. But, the fans, eh, they appreciate we coming there because of ko big music, and am could ko the wala di and vidéo clip am yàlla def dégg out war koo gis no moom loolu was something great. no, no. la nit ñi naan soo gisee ñu yóbbu slam ji England pour rek gars no, no, no, yi mu jaar moo tax ñu yóbbu woon leen <laughs> waaw loolu loolu nu mu demee noonu. <laughs> gak ada yang baax no, non xam nga la moo nekk friends yi friends yi bëri in Angleterre rek friends yi Seydina Omar yi dañ ko trop because orang solo nga baaji sens beeg yooyu noonu ak boy, booy yëpp tukki same thing tamit man hari xarit yi tamit ñii suñu den di ko suñu bëree jógee Denmark way, ñëw si programme because of slam ji ñeneen ñi sax nekkutoon classe mais just for friendship waaw waaye salaam ji daal mu ngoog daal xariti Gambien ñëpp lañ daal waaw dem Angleterre bi tamit expérience la tamit because of artist tamit xam nga da nga war dee tukki tamit di sel produit bi nekkone da nga wara tok toog benn dëkkari di yengal Gambie rek da nga wara yengal Gambie muy feey di gëna di feeñ ci yeneen dëkk comme ni nga déggee walé di wax ne musique am dina jàll frontière di dem bi dem so ñu fa ñu takkan bo gënonu lañ am tamit fere tamit affaire yi dem Angleterre bi tamit baron na ay ciow lu bari islam ji dañoo taw comme ni nga wone islam slam seen ticket yi dañ dañoo tax ticket yi di jar islam ji sayidina Omar dafa dafa dafa ñibsi si dafa taw so di fleen wax nga daan dégg na xam nga lu ma fekk ñun nag dañ am suñu fiwu am suñ ko teg buñ dëgg buñ nekkee ndóo ne ñun dañoo ndóo Youssou Ndour wala dañoo ndóoru Omar Pène wala dañoo ndóoru kii bi ko su dañ day gis ñooñu day am chance yu day dem ñëwaat so ñu ne waaye wii soo loolu tamit bu ñu demee mu sottaay si lu bari xam yow nag caat da nga nekk koo xamante ne maa ngi woo yem <laughs> affaire de ambiance daf ñu nee <laughs> dañoo bëri xaañu ku gis xam ko yow yow loolu la waaw ñun dañ xam nga moom <laughs> bi very good moo tax oh, ma laaj la question bi yow um, bi nga ñib si jógee Angleterre es ñib si naka la yëf yi demee ak gars yi ci fay di yuho fale xam nga da nga yow moom ku la gis am yaat ngay bari bës ngay bari foog di la yuuxoo fale xam nga ngay xaju fale indi am na indi na indi bu nga ñëw indi nga xaar bari ko paru bari nga indi so lewi na nga dundé life bi nag ngay romba ci mbéram ñi ni xëy mu ngi ni dafa demoon England de wa xam nga tamit like euh ñun ci music bi uh, yaga ci so tamit am ñu melni ñom ma ci si paaw ma jaak friki joo daan ñëw suma site ma leen di wan naka ba yàlla def gars yi mu mu tukki moo da ngaa gis ne feeling baa ngi woon da ngaa gis dañu daan dem duggee demee si musique bi daal mi ma indiwaat leen bu ñëwee daal gis nañ som because of gis nañ ne fii ku fi tukki people love you xam nga tamit because of duggal nga plane ñëw xam nga soo dañ daan xaaya xaay caat ma ne tamit may xaaya xaay daal ñu waat baal bi moo gënoon a important daal ni ay xaandi yeeg yooyu noonu tamit kontaan noonu naa ne dem naa yóbbu Gambian flag in a far indiwaat ko baax pour mun a ñu toog si télé bi di waxtaan ne slaan yi jógee nañ Angleterre def nañ fa nii waaye taaxaan a ko jóg ba pare tamit gisoon nañ musique lu mu doon lu mu defoon tamit suñu papa yi démba ak tamit suñu mag soo ko boolee jigéen bu bëri rek da ngaa fakastalu so loolu tax tamit dañ daan xaayee xaay tamit xam nga ay bandi lañ noo ngoy teg xam nga caar wax ma bi nga ñib CSA England yow fan waaye fu nekkal leen toj xam nga lu ma miin fu nekkal leen toj ci àdduna bi. xam nga fu may waxee xam nga fu may waxee bu ma jaay gaaw. xam nga fu may waxee foo toj. ñëpp si xaalis a xaaju a ko yow fan bi moom macha allah bala koo gaa di ko dégg foog ne ba léegi mu ngi ci account bi moom xaalis bi moom lu ndaw la woon rek macha allah boobu moom noonu laa ko waaye toj bi moom bu ñu ñibsee salaam ji fu ñu ñu ñu toj fa fu ñu ñu oo salaam ji toj fa dem nañ play baara dañ play waaye xale jigéen ñi moom mënuñ ñoo bay because of dañ dul fekk ko ci satatuma waa Banjul xam nga boo yeegee daga xam nga nice dañu daan chase sax si mbedd bi waaye loolu yëpp taxul xam nga waaw so ñu ngeen ko mu ne gars yi dañ ko daan chase gars yi de ah, gars yi ko daan chase <laughs> foog mu def ko rek ambiance la bëri bëri xaañu ah ñib si England di woon ne gars yi ne man ñib si naa ah, ak ah. seen flag bi yow Gambian flag bi kontaan ci bu baax a baax ma delluwaat ak ak Seydina Omar ma fàttali leen ni ñu ngi fi ngeen demee England yéen ñu foofu ñun affaire si change Gambia fii life bi fii ak fële mu utee ah, lu tax lu tax ah, leen lu tax desul leen foofu noonu mosuloo toog nga regret naan lu tax man tooguma England ma ñàkk a ñëwaat Gambia bi parce que ñëwaat Gambia coono bi fii naaj bi fii affaire si iso daal that's a good question ndax xam nga li xew mooy man demuma woon à Seydina Omar à suma tur bi nekk suma passeport Seydina Omar nekk suma passeport suma real name boobu hmm, demal ma woon loolu dama demal loolu benn diplomate boo xam ne mu profession bu ñu ooyee musique loolu mooy li mu woon te musique am doo dem benn dëkka bu ne ngeen ne benn musicien moo fa am ok dëgg la Gambia lañ nekka nekk na dëkk boo xam ne am it's a struggle for everything it's a struggle for lu bëree bëree bari ok gis nañ suñ brothers yi naka la di métti gis nañ naka la ñàkkee tamit suñu ay brothers through the back way just to get to Europe mm. so Salam ji doing music am opportunity dem Europe man dama dafa am profession bu ma which is music okay am du du du suma jogi boppa man kenn déedéet dama jog for music and I should respect that gis nga tukki dafa nek lo xamne su la munee rek dang ko en okay te am ku naabse du def music lulu luma ma So wax la so def music man if you step in the airport you out from the next street kenn du la gisaat anamu dox na gis nañ ko fii wat wal xappun fa a reason ci ku nekk képp ku ko def dafa xappun fa a reason ak ni mu si yoo but comme man suma xalaat man music moo fi génnee I understand te uh, deal bi was to to go do what I have to do ba pare ma ñib si waat pour ñi ñëw suma gannaaw ñu am that opportunity because Gambie nekk na dëkk boo xam ne visa is a problem for even an artist you understand artiste nekka koo xam ne ambassadeur bu mag la bot ñun Gambia style ñu ngi gis suñu ay broda yoo xam ne ñu ngay toj Gambia bot ñu ngi leen dinaay visa te loolu mu ñoo naxari mm-hmm. you understand so then su dee ne ñun lu ëpp si ñun suñoo dem Europe dañoo toog na la leer ne ñu nekk suñ gannaaw di war a fexe pour bugg a tukki ñu ngi ko métital ñoom because of yoon bi dafaa gën a xat pour ñoom so it's it's just one plus one because of nit ki yaay xool xam li li li tegu nga def ko xam lu teguwul nga bàyyi ko because of lépp lay def jiital si sa yow rek sa bugga bugga it does make sense music mbiri àddina la mbiri mbiri mbooloo la mbiri mbiri dëkka la because of su dee ne yow danga ko def pour sa bopp rek then soo ne tap gaat with you are off on the next street was music mën na laa yóbbu foo fogeewut artiste a ngee music lan moo ko mun music music la mun a def nga unique music moo moo la mun a def ñu ñu nga am that that gesture boo xam ne it's gonna be very special. music moo la mën a may loolu xam nga just as a president having it so kon mu ngi noonu ambition bi was to and come back. affaire si daal. dem moo taxoon gars ñu dem te ku naaf si doo def music moo ko wax. si naa war mu ne ku naaf si ku ne doo def music kon suma maase duñ def music. ndax man moom dama naaf si. fi leen bi daal bés bu ma ko fëlesee jàkkaarloo mu ne damay dem. ba pare leneen li ma la bëgg a yokkal. bu ma demee dinaa dem ak Gambian Talents man fu ma dem duma leen bàyyi gannaaw fu ma dem maa leen nag ñoom. soo puloo li ma la bëgg a yokkal ci loolu mooy. waaw ah. damaa ñaax tamit képp ki nga xamante ne am nga ambition pour yóbbu Gambian artist lépp lu war si diggante ñoom. Hmm. fexeel nga def ko that's very important moo tax ma ne la képp ku toog am na reason understand so képp kuy war a jël Gambian artist di ko fa yóbbu fexeel lépp li nga euh, binda ak moom nga wàccoo ko moom it's very important because artiste dem na toog ñu bileem ko mm-hmm. fekk xamuñ ki ko yóbbu naka la fa ki nga xam ne moom moo jël um, di di all responsibility bi nga xam ne moo ci war pour yóbbu artiste please is pour ngay lépp lu war because of it's not easy artiste ba fa dem liggéey so so am na yoo xam ne dafa dee demee noonu so artiste bi su toogee we blame the artist. fekk fàtte nañ sax ne ki ko yóbbu moom waree ba xam nga. so it's it's two way daal. waaw waaw waaw dégg leen dara ndik am dara yéen a ko déggandoor soo leen yóbboo gars rek def leen dara waaye dinaa dem dugg eh, si si dara ma gis ah, musique bi ah, at yi passé ku wëy rek dangay wëy baabi man sax ku wëy rek wëy di former président wëy yu nee fu fu nekk fu nekk ma gis eh, yéen ngeen wëyu leen wëy pour baabi waaw li ko waraloon lu yomba la li yomb la because comme musicien bi is above the president ñu président bi ñu ñoo ko biggal so comme te président bi ñoo ko war a wax dëgga you understand te képp a koy ñaan rek wax ko dëgga du yomba so this is our thing this is our ambition in it bari nañu ko doon wéyal muy leen may xaalis it's very true ñun play si ay concert some those days mu ekkati jox ñu without ñu ñu wéy ko but ambition of doing a song pour moom du woon luñ xalaat because of dañ believe ne ok musicien yow yaa ci war a eh, su président bi dëngee yaa ko war a wax dëgg you understand te bés boo ko wéyee mënuloo ko mën a tee wax dëgg so comme it was uh, very xam nga dafa nekkoon loo xam ne was very critical di bugg a wéy président because of président dafaa ñëw di dem te fii kenn nguur yàlla bi dafa fee des ñun ñëpp dañoo ñëw di dem dañoo ñaan yàlla na yéex rek you understand so loolu soo ko xamee kon artiste bi war naa mun a def loo xam ne dafa fexe pour everlast because président lu mu fi toog 50 years sax one day he will be out so then dafa am loo xam ne artiste bi daf ko war di sóoraale it doesn't make sense pour xam nga la amoon na nit ñoo ne euh, fiiloon nañu laaj pour def ko seen choice la but it wasn't a choice pour Sirah ñi def loolu because of ñun ni ñoo gisee xam nga because président bi ñoo ko waroon a wax dëgg ñoo ko war a mën a wax dëgg so suñ ko wooyee den amatul njëriñ ko of xam nga a dafa garaaw mo waral loolu képp ku neex gars yi jaala féere yi ñëpp di ñëw dëkkandoor yi ñëpp affaire bi taxar naa si te xaalis dafa jeex ngor moo fay des so das bari important ngor moo fay des moo ko wax ne mu ne ngor moo fay des lan même dugg si boobu noonu waaw waa jooju dama ci bëgg a dolli tuuti si about euh, démb bi euh, nga wax ci affaire yi islam yi lu tax jëfante wuñu ak président euh, mooy lu ma laa wax rek ñun islam bi xanaa nañ daan dégg islam ji clan clan bi mooy like famille la rek nga ko mun a waxee like so ay mag yëpp a si bokk ñu ngi gërëm suñu papa bi El Hadj Mantour Ndiaye moom it a gaañu ñu ni tamit dañ nekk xale xam ne dañ tàkkaan ba pare tamit mag yi dañu daan bàyyi so nekk ci dëkk di woy président ñun jàngaluñ ñu loolu ñun dañ ñu jàngal pour ñu nekk ci diggante président bi ak ak ak waa réew mi su dëkk bi yuuxu ñu jël ko woy ko président bi tamit su yuuxu ñu nekk ci seen diggante daal. waaw waaye dañ dee gis ne artistes yu bëri dañ dee nekkee side bi so dëkk bi suñ complainer ne ah, pax yee ngee tilim affaire yi environnement yi doo ko mun a woy ndig lan yaa ngi xaritoo président bi presse so da ne ñun namuñ ko def loolu mooy lu ma laa wax rek tàkkaan bi in Banjul la soo fa nekkoon doo tal sa président bi bi ko woy because of da ngaa xam sa soxla ko so mag yu ñu jëflanteel so ñu nekk si diggante gi artiste da war a si nekk si diggante pop da nga war a nekk si diggante nit yi ak président bi su waa dëkk bi ak président bi soo su su gars ah nawet de moom courant bi mu ngeen nii nii nii nga woy loolu pax yi mu ngee tilim yow nga woy loolu président bi dégg waaye soo nekkee waa si naaj sayti président bi rek soo su gars yi complainer doo mun a lifin soo ñun looloo tax. loolu la ñu mag loolu la ñu mag jàngal daal. so musique scène bi daal dafa war a nekk et di yéetoo diggante nit ñi ak président bi yaa ko wax de loolu du ma si wax lu bëri ama gis la caat yow wuy boo leen wéy rek nga fecc ko ba mu jeex seen na li naa war suma moom affaire de fecc moom du cee du cee faral dugg lu bëri waaye yow moom loo wéy loo leen wéy nga fecc ko si seen biir ay euh, clip ma gis seen clip bi ngeen defoon ak euh, ses ngo mu nekk euh, clip bu nice kontaan si yow Mm-hmm. noonu la woy bi tuddoo yaakaar naa mm-hmm. ñu gis fa ki ñuy wax Sénéndéné mm-hmm. Sénéndéné mu nekk woy boobu clip boobu noonu soo ko seetaanee boo bëggutoon a déglu woy bi sax soo xoolee Sénéndéné manière am yi sa xol dafay dafay seeda muy def fa manière yu nekk dañ koy xool ree ba léegi su ma xoolee musique bi man damaa kontaan lu ma daan def rek dama ko gisee musique damaa toog xool ko bu bëggoon nga wax ñu ban relationship ngeen am ak ak Sénéndéné Sénéndéné mooy Sénéndéné daal suñu rakala in Banjul Banjul daal soo déggee nii ngay day dégg ne ñu daa wane Banjul la fa xatat waaye ngaa génn dem Kombo Banjul la fa nekk kon benn tulaali bar rek na sànga so ñu ne ñun ñëpp xamante ni ndaw bu ndaw toog mbedd gi bari amuñ guy comme Kombo so da ngaa gis ne xamante gi daf dee mën a yomb ba pare suñ papa yi dañ daan bàyyi poor dañ daan bàyyi poor xam nga si yoon bi xam soo suñ ganaaw kër ku nekk suñ papa yi dañ daan bàyyi poor comme soo buggee saraxe soo da ngaa gis ne connexion ñu dañ judd gis ruxa ruxa ruxa ruxa si suñ kër fekk suñu papa yi ñoo bàyyi ruuxa yooyu noonu pour suñ bëggee génnee asaka bàyyi tri o'clock ñu yoot nanka dem mairie soo da ngaa gis ne connexion boobu noonu moo nekk biir Banjul loolu te ñëpp xamante di dajee benn di dajee benn procureur xool bi di dajee benn marché bi di dajee benn paak bi soo benn jëmukaay rek lañ am ba pare a xamante soo si ni ni nit di àndaa suñu rakk yi pare ñu gis ne moom bi tamit mu ngee toppa showbiz bi di si def lu nice te in Banjul tamit suñ gisee ne xale bu xarañ tamit nekk ci mbir dañ la dee bëgg a taf suñ biir because of ñun caaxaan taxuñoo takku jóg te ni nit ñi tamit taku taxu taku jo so jóg soo ñu waxtaan ci moom mu gis ne moom itamit saytam ndox ko moom lu baax soo lu ñoo am rek ñu bokk ci boole ko ci rek moom itamit mu ñëw gis si boppam. moom mu daan def lu nice mu daan def lu rafet seen li mu am feccee unique moom rek amul feccaam yooyu moom dafa flex. di gërëm suma produit tamit Ismaïla Ngom moom mo moom si vidéo clip bi nga wax noonu tamit yow leen léeg mo it moo seen mo nit moom moo doon fecce si indine bi noonu Ismaïla Ngom moom it ma ko gërëm bu baax baax. Kanté euh, ñu gis leen ngeen wëyi ak koo xamante ne legend koo xamante ne ndaanaan la mu nekk euh, ku mag si Gambie bi ngeen def wëyi ak euh, di leet Moussa Afia Ngum ñu koy wax ngeen fiil ngeen wëy mel ni di leet xam ne def na lu bëri si music dem na yóbbu na ko fu sori yi macha allah yéen how did you feel ngeen wëy ak moom wëy boobu noonu bu nekk wëy boo xamante ne bu neex la ñëpp like ko du mag yi du xale yi everybody how did you feel. waaw daat duñ ko ñaanal yal na suuf set si kawam bu baax a baax suma papa bu baax la so mooy li nga wax de lépp si yëpp si deret yi Faramaren bi la rek maa Seydina Omar dañ toogoon amoon dañ amoon wëy daal wëy ñu dañ daan toog di seet any any corner boo xam ne nii any corner loo xam ne nii si about society bi dañ koo wëy dañoo wëy yaay dañoo wëy lu nekk so dañ bindoon wëy song yi Banjul lu yàgga farma toga mum bena de mané ko boy suma papa bu bañ ngi wëy lu melni banjul la duñ jël ko ma loolu good idea non lañ wa dem séti ci ko papa ñu waxtaan mom mom tamit mo gis ne suma rakay ba pare tamit suma dom di dudu ngom musa ngom mom suma real name dudu ngom la so di musa ngom bena ngom bi la so ñu wax ko ne ko dañ remix so mom mu apprécier affaire yi be so ba pare tamit jël product bi ba pare baye ñuko ko ba pare ñu dem leen ngeen liggey ko keba téro xam nga nit nga ne ko dama defa yo combination mu jël musique bi pare mu ne la am jox naa la ko defalee ko nu la neexee ba pare demal si diw sàngam mu liggéeyal la ko so paa bi ñu ngi ko gërëm bu baax a baax di ko sant su noonu lañ liggéeyee moom liggéey bu rafet amuñ ci benn pression amuñ ci dara soo ñu jëlaat li expérience sa si moom li mag la yàgg na si aar gi so noonu lañ demee record ko si xalam studio si tara so far yàlla def si diggante bi mu dem tukki dem Angleterre ñëw dem si euh, Omar Pène for years anniversaire bi fekkat cuun bi ñu ngi ko doon xaar ci sub vidéo clip so bi moomu dem sax daf ne ma ngom bi su ma ñëwee rek ñu suñ ko mu ne ko amul uh, di nuyu famille bi di leen wax ne yéen a seetaan Pullo uh, Ardo Show fii si Gambian Talents uh, TV um, benn tey ñëw si kii di um, Seydina Omar Koup di suma doom baay um, doom baay ñu gis leen si seen benn performance si benn. TV station benn programme yi invite leen fa ngeen perform fa seen sugar daddy bi ñu gis bi ngeen performé suga daddy bi jigéen xale jigéen yi daal dafa mel ni yaa leen coxoon gars yi xoo fële ka dal gars demul neen place bi doo si dee gis góor yu bëri sax yow loolu loo am pour wax loolu si si si wax jooju yow wax waaw xam nga lépp lu jigéen bëgg rek góor ñu dañ ko say fekk ya. moo tax um, it is very simple music su demee jigéen ñee ko yóbbu su demutee jigéen ñee ko tii te Gambia as a whole duma ne slam ji ñëpp xam nañ naka la jigéen ñi Gambia mel ci suñ musique musique Gambia soo bu fi fees jigéen ñi dee aar 90 pour cent ñoo fa nekk fu jigéen dem rek booy dañoo ñëw jigéen ñi bugga booy dañu see fekk si. Mm-hmm. so ñun we music boo xam ne. dafa dañoo fexe mu attraque jigéen ñi yaa understand because booy bu laa jéem a jaay dëgër tànk defal lu lu neex jigéen nga xool su ko jigéen bi yëgee rek moom it daf koo yëg so that was it loolu performance bu nice la woon because comme Sugar Daddy nekk song boo xam ne tamit liñ cee wax dafa rëy liñ cee wax is real life situation but nit ñi dañ like music bi because of technique biñ ci def mooy gis ngaa Youssou Ndour lépp lu mu yee nit ñi rek daf ko teg ci fecca bu neex ci musique bu neex soo i simple te musique boobu ki ko liggéeyoon Tafa Faye Zil Diop xam nga Bakane Seck ñu ñëpp ay Sénégalais lañ yu mag bi Sénégal so ñu def mbalax bu neex because fii comme mbalax bu jaar yoon bu dëgga dëgga xam nañ ne ok Sénégalais yi ñu ci moom even though suñu broda yi ñu ngi try fii def lu nice you understand but comme musique boobu dafa jaar yoon bi nga xam ne ku ko dégga doo tii sa bopp te ñun lépp lu ñoo def rek dañ dañ ci dee bugga nit ñi di ci yëg seen yaram wax dëgg because bugguñ yaram bi soof ci suñu musique dañ yàgga di def musique boo xam ne nit daf koo fécca kon loolu dañ ko xamee salaam di def musique boo xam ne dafa am ambiance so moo tax ñu usoon nag opportunité pour make soo ne musique bi am na ambiance bi soxla because wax bi dafa dafa dafa dafa cawe torop soo foog ñu teg ko si ambiance ñu mun koo balance. waaw daal yéen da ngeen dee use ah, jànka yi pour am boys yi daal yéen daal ngeen yéen daal ah, ba jigéen ñi ñooy tax góor yu dëgër tànk. jigéen ñi ñooy suñ doole. jigéen suñ doole dégg nañ la foofu sax ma dooli fa tuuti sax ma dooli fa tuuti sax xam nga sax dafa am yenn woy yoo xam ne nii su fekkee ne sax yow la moo gën a laal doo nangoo toog. yow ñuy play musique boo xam ne ñu ne suga da di bàyyi xale ñu dem te di yow nga doon jigéen soo toogee ah bañ a fecca gars yi dañoo wane xanaa kii daf ci bokka so da ngaa jóg yooyu tamit di féete di ah mel ni bokkuloo ci di so da gis ne sugar daddy bi tamit dañ ko dee play ay place lu mel ni ports am programme invite ñu te ports dafa bari ay dates so dañ dee bala ñoo egg bi sax dates yi dañu dee yokk keppal na su ma raka ngeen ñun waaye su affaire yi dooree rek dates yi dañ ko dee féete because of ku taxaw stress dañoo wane yow yaay sugar daddy bi xale bu jigéen bu taxaw stress tamit dañoo wane n sugar daddy bi moo dee kenn du ko bàyyee sa morom ñi fay jóg féete pour kenn so affaire bi noonu la de. ak sama bëri doomu baay dañu lay sos yi dóor la ndax yow li ngay yokkali mu ngi bëgg a bëri dangay bàyyi ba wax ba wax ba rek nga ñëw rek ñambaat ah yow loolu lañ la fi son def la loo xamante ne muy loolu ah Bintey yéen yéen ba bëggoon xam yéen. Ah, mu ngeen nekk ñi nga xamante ne ay ndaanaan ngeen waaye da ngeen ne toog lu yàgga balaa ngeen a release wuy soo leen génnee bi ñëpp waxantoo ko ngeen toog lu yàgga balaa ngeen a génnee beneen ñu gis seen yenn artistes yi nga xamante ne ñoom defoon nañ fi lu xarañ maasi Fambada Sène ngi euh, ñu génnee fi wuy bi nga xamante ne ñëpp a koy doon waxantoo mu jékki-jékki kenn déggatu ko kenn gisatu ko yéen ban assurance ngeen jox seen ah, fans yi ne doo leen nekk ay one time hit wandara doo benn wuy bu xarañ rek ngeen fay duñ leen dégg ban assurance ngeen ay jël seen paase. bu ma bàyyi si dina amoon wax ci tuuti. waaw li ma mën na wax ci loolu is a good question though. liñ um, gëjoon a dégg si laam bi it was important ne discours nañ ko fii te discours nañ ko fi ren ak feneen and li ñu gëjoon a dégg um, it was very important pour nit ñi gëjoon a dégg moment boobu xam nga because I have to be taken xam um, nga moment boobu dafa important torop moment boobu li ñu ñàkk a dégg moo moo waral tey ñu ñoo dégg li ñu li ñu ñàkkoon ne dégg moment boobu moo waral tey ñu ñëw déggaat because ana certain things you cannot force it though but li weesu mooy salaam ji am mu ngi liggéey ci own libinam bi nga xam ne mooy ongo bi noonu music boo nga xam ne ñun is our own creative label buñ moomal suñu boppa liggéey ak kenn assurance bi ñoo jox fan mooy music dina ñëw ni mu waree lépp loo xam ne intel na entertainment dina ñëw ni mu waree because of comme am liñ teg bari na liñ bëgg a def bari na ndax ba léegi fans dañu ne am ngeen place ci musique moo waral ñu def musique ba léegi ba léegi fans yi dañu ne seen li ngeen ñu daan jox yéen dakañ ko mën jox kon te su dee ne fans yi wax nañu la loolu den is like your place is still there mu ngi mel ni da nga koo jëlee ticket from another ba race ba bi teg ko fu kawe so loolu loolu mooy li ñu li ñu war mooy lan yokk liggéey xarañ ci gën a def li ñu war a def because of music bi fi mu ne salaam ji fi ko teg ak liggéey yi nga xam ne ñu ko sumba ak liggéey in different ways is very interesting pour fant si suñ ko waree dégg yaa understand kon nañ am assurance bi ne lépp loo xam ne entertainment la salaam ji war lañ koo jox ci ay fa ñu néew dinañ ci xam dara because of comme am na lu ñu nekk di toog ay different things yoo xam ne lépp pour ab di dajale fan ci place xam nga leen bégal lépp mu ci pipeline bi te we have to do because ñoo sign pour do music so we have to keep entertaining. they will keep entertaining loolu la ngay wax they will keep entertaining waaye balaa ñoo sori balaa ñoo dem foofu sori danaa leen bàyyi gars may ñu tuuti acapella gars yi duggal ñu si biir delloo ñu gannaaw si kontaan naa man boobu laa bëggoon ngeen ngeen dugg ci. ah yoo lee yoo lee waaw ah. yoo léeg-léeg léeg-léeg léeg yoo léeg-léeg su fekkee li ngay wax ne dëgg la feeñ na ci yow. cofeel bi ngay wax ne dëgg la feeñ na ci yow. mbëggeel bi ngay wax ne dëgg la feeñ na ci yow. oh suy daal woy wi yàgg moom. waaw waaw dama kontaan. dëgg la dama kontaan ci yow. fay dëgg la maa ngi lay bëggee ndax fi nga nekk ak fi nga nekkul su la gisul damay wéet oh baby wéy wi yaa ko moom oh baby nga liggéey lii tikis ñu fay la lii tikis yaay sama lii ah di sama lee ah te yax ma ci wuy daw si te yax ma ci waaw te yax ma si ñoo ko wax <laughs> de wéy bi neex na wéy bi dafa neex dara macha allah ah oh wéy bi moom macha allah nga benn tey ñu gis yéen naka ngeen gisee um, Gambian music industry bi si fuñ nekk nii ngeen yàgg si music trop macha ngeen gis music industry bi Gambia. waaw music industry Gambia ni ñu ko gisee daal loolu daal rawul yëpp seen bët ne ñu ngay gis ne boo yee ngay traay bu yàggul rek la fi suñ raka ju baax ku ñu déggal music bi di esti feesal stade bi boo yee ngay feesal pencha bi so so boo yee ngay woy lu sound loo xam ne nii ñun damaa dox si biir dëkk bi sax di dégga ñu ñu daan ignore dañu wane ak ah, Gambien ci woyuñ léegi ñu ngi try so léegi nañu government bi dé dimbali bi ko su olof Njaay ngay wax ne feccay liir su neexee ndey jaatee sa mbaga ba xam nga feccay liir su neexee jaatee sa mbaga ñun nag fii nag liir yee nekk di fecca waaye ndey teewuñ si mbaga bi so ndey yu war si mbaga bi xanaa ma ne yéen ak xaafi radio station bi fi nekk nii ak QTV waaye ndey dañ ci war a. Paradise TV yooyu Paradise TV. GRTS xam nga so ndey wara te ci magi dañ wara gestu see suñ néego yeneen dëkk ñu ñoo doxale ben ñu leen di naw si music ku tega pot rek dem nga fi da nga tega pot bala nga dem dina jël ay yees nga génnee music bu hit bu wara dem international ngay romba ci tali di ñaan paam lu baaxu wala ngay ñaan liif xam nga loolu is not nice so at some culture ni ñu dimbale government side bi tamit ñu dimbale ñu boy yëngee create so ñom tamit duñ mëna tok di wone we have star be pare tamit defuñ fi dara so dama dee ruus tamit kan li ma laaj because I have so many friends in UK so many friends in Sénégal boo chat naa ñooy nice waaye da ngeen war a génn Gambie loolu daf ma nee naari te ñun dañ loof Gambie dañ bugg a Gambia xam dañ bugg a Gambia hundred percent loo tax dawuñ waaye su fekkoon ne daw la suñu morom yi nuñ def xam nga waaye dañ bugg a taxawal flag yi Gambia tax nag still ñu dee cry for Gambia pour lu neex Gambia so ñun loolu daf ñoo mbébét loolu soo saa yu ñu ko laajee daf ñu dee naxari trop waaye ñu ngeen ñaan tamit président yi dégga ñu nekk ci kaw dégga yàlla dimbale ñu gars yi waxtaan ñu mi neen lii da si tamit ñu nekk si showbiz bi ku ci nekk tamit bàyyi di wax ni man maa moomee boor bi maa munee boor bi nañ ñëw ñoom mi neen together artistes yi tamit ñëw ñoom mi neen together ñun ñëpp ñu waxtaan suñ la waree fay five si fay ma five dalasi ñoom tamit ndey mbiles yu nekk si kaw tamit ñu déggoo nañ ne leen jàppale music industry bi booy di dem di play si festival yi xam nga comme suñ néegoo si maam billaahi so lo rek lañuy ñaan ñu jàppale ñu waaye boy yee try radio station yee ngee play boy yéen tamit yéen a try so macha allah. we love Gambia ci a mooy music bi bari na caal dëgg la but man dama congrats ah, dama upload ñi nga xam ne ñooy fans of Gambian music xam nga ñu ñooy fans of Gambian music mooy ñiy jël seen ticket di jënd ticket pour Gambian concerts. ñi day jënd ticket gis nga ñooñu noonu day feesal soo yi ñooñu ku ci amoon million daf ko invest ci artiste. laahi kooku noonu am na koo mun na koo jaral one month muy dajale lu moo dem seetaane ST si concert bi oo gisul oo bi nga xam ne mu ngay fay ticket man kooku kooku dama dama ko dee bu baax because of kooku. Mm. mooy ki amee Gambian music. because ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy feesal si. Mm. ñooñu suñ amoon doole bu mag bi ñoom ñooy ñiy sponsor. big package bi make soo ne artiste bi lépp li nga xam ne war na ko am pour concert am am success dinañ ko def gis nañ support bi ñu ñuy yoot di ñëw hmm. ok parastation si institution si compagnie gis nañ ñu ngay yot bat nañ nañ nañ jàppa xam ne xam nga xam nga xam nga lan moo important gis nga sénégalais yi dafa am ci lu ñu rawee mooy lan ñoom dañ lay jàppalante xam nga ñoom ñoom duñ la am di daax ci biti dañ lay am dugal kër Gambian bi is very important mu wise about that that that thing gis nga yow tey man as a musician for example su compagnie bu mag su ma signé tey mu signé si laa for let's say ñu ne one million dollars yi one million dollars yi boobu noonu tey ndax danga nga yaakaar ne dañ koo dugal yëpp si record music or videos one music boobu one million dollars yi boobu xam nga ñaata nit la si salaam ji ñooy lekk am one million salaam ji ak ñaata nit la see war a dimbale dañ war a am di ay jeene xaalis si musique musique ku ku soxor du ko def musique képp ku support musicien xamal ne ëllëg yow mi ko support musicien bu mun naa support sa jarbaat oo sa keneen koo xam ne ku bokk ci yow so moo des very important musicien fu mu taxawee soxla ndimbal nañ ko ko jox yaa understand because of ëllëg musicien bi xaalisam dafa circulate te mun naa dal si sa doom musicien bi mun naa dem ba war a taxawal ne dama bëgg a sponsor five students yow mu nekkoon ci compagnie bi di ko bëgg a xañ sponsorship boobu moom mu ñëw ba sponsor sa doom si uh, for a package of uh, xam nga school fees or whatever soo xaalis si music dafa dafa dafa dafa dafa nekk loo xam ne ku ko mën a njëriñoo dafa bari kon nañ support music bi maa ngi seetaan ci news bi démb maa ngi gis 18 million dollars boo xam ne NCAC ñu ngi leen ko sponsor pour music training entrepreneurship bi ma ko suma ma ko fa moom la seetaan news bi mu oom gis nga bi ma ko di dama ree ndax SOJ man toog nañ office am amul luñ waxtaanut because man xam naa NCAC luñ mënut dama ko daan wax mu ma das very true ak lii de suñ liggéey la ñoo ko waaye nii nii gis nga loolu xaalis boobu noonu ñuy wax tey yàlla na bu mu fi isi World War 3 pour Gambia non because dama ko gis dama ree parce que dama xam ne billaahi wallaahi lu bari tey ah munuñ koo def am na tey koo xam ne dina try to act real to our Gambian service because of xaalis boobu noonu tey billaahi ah xaalis boobu su jaarut yoon maa la ko wax di nga gis artiste buy yott ah officer something xooti boppam bi man maa la ko wax because of dama ko gis ma ree ma xam lii lu moo isi ëllëg su jaarut yoon billaahi wallaahi talaahi Gambian si yaa ngi maa seetaan Lee is something that Gambian artists have to come together. This is money for, for we have to make our industry happen. You understand? Lee suñ ko tegu ci yoon ñun NCAC yi luñ mënut ñun xam nañ ko. You understand? ñun yàgg nañ ci musique yàgg nañ ci musique am nañ expérience si suñ dëkkandoor yi bu baax a baax toog nañ fii ay kilifa waxtaan ñoom ñu ngi nuyu Oku Dramé fu mu demoo ci àddina waxtaan nañoo ñoom ci affaire yu bëree bëree bëri. daf ñu doon xelal bu baax ci musique kon tey di xaalis bii na cib daa mel artiste we have to come together ñu nekk benn benn benn def benn benn muul boo xam ne suñ ko defut trust me gis nga tey am na koo xam ne tey kiram si brique bi nii la emoon tey mun na ko see complété am na koo xam ne tey laan bu mu yàggaa teget one million dala si laan bu bourse bi mun na koo teg ci bëtam because 18 million dollars how many million of dollars are we talking about so tey xaalis bi if we didn't put Gambian music together because xam nga mu ngi mel nii dañ gis yàpp dañ gis yàpp te te bukki yi dañ bari we have to be very careful lu ko mooy rek disaster bu mag dina am ci mbiri xaalis bi if we didn't put it in place and the right direction because ku nekk na ci bugg a ne suma poos and we can't allow voice lañ am as musician we are the fastest tool of communication kuñ bugg a waxal mun nañoo wax a yow kuñ bugg a wax dëgga mun nañoo dugg si studio bi wax la dëgga kon tey xaalis bi Gambien bi ñëpp seetaan nañ TV ñëpp gis nañ ko dégga nañ ko dañ ko teg ci yoon or tey am na musicien boo xam ne nekkul di fey pour register because of lan gisul NCAC li mu ko defar am na ci raytam tey artiste bi nga xam ne fay registration am na ci am su ma fayee what are the things put in place? You understand? The ne la fay every year xaalis boobu di dugg a fan pour seen boppam te yéen am na loolu ma war a defal for how many years you have never done any Contain tey xaalis bi ñëpp seetaan nañ TV bi ñëpp gis nañ SOJ li mu wax c'est Omar suma tool kon nañ meeg soo nañ def li war nañ def lu war lu ko it gonna cause disaster because of fu mu nekk bu kuy jóg nañ and they have to be very careful xaalis ah, bi ah, dugg si ñuy ñaan ah, ñëw na si réew mi ñu put ko into good use mu ñàkk ñoo indil benn problème ñu use xaalis bi promote luñ am biir Gambia dimbale suñu artiste ndax gars soxla nañ ko torop mu ñàkk indil xëccoo ak ngaa sama doom bay lu muy wax nañ make sure daal amut mu nekk loo xamante ne lu lu nice la suñu amee loolu am ñu dimbale suñu artiste yi ñu ñàkk a suñu interest kese xam na musique Gambia bi fu munti dem dina yóbbuwaale suñu tur bi dina am dara pour def si Gambia bi ndax ñoom saya yuñ ibbee wax rek dinañ xelal ñu bari dinañ jangat lu am fofu mo jëlé ma mu duggal ma ci li nga dégg nañ ñu bari fi di advocate ñi di wax fi naan ministry of tourism dañ ko wara separate from ministry of culture. ndax ah ma déggoon. Hmm. da ma déggoon si interview moom bi def some time back or. Hmm. <laughs> wax wax de. Uh-huh. yeah man we we we go for that slam. gis nga mel ni da nga bàyyi xel suma interview si nga xam ne def nañ ko because man ñun salaam bi loolu lu ñu advocate la so because nit ñaa ngi seetaan télé we read news we check out the newspapers so te dëkk bi nga xamante ne music taxaw na fa culture ministry of culture benn la amul culture of ministry of culture am nangam ministry of culture am nangam culture is just culture xam nga la yow culture dafa fiir dafa fiir torop tey ñu ngi ko boolee tourism te lan moo attract tourism du culture but at the end of the day because of der yu weex lañ fa lañ gën a focus so moo tax fàtte nañ li attract tourism ba moo ñëw si dëkk bi lii moo tax ñu ne saxal culture but li ko attract suñ ko fulaloon we can maintain tourism and culture but li ko attract dañ ko rey ne culture is the only thing te ku nasaxal culture nasaxal sa sa baaxi réew yaa ngi kon tey ñun président Adama Barrow ñun ngi laa ñaan it's very important ñun dañ bëgg a gis différence si diggante bi nga fi nekka mu gudda mu gàtt ok musiciens yi bugga nañ bu baax pour ministry of culture mu stand as alone ministry of culture not being combined with ministry of tourism and culture because of dañ bëgg a ku ñu gestu dañ bëgg a lépp li nga xam ne culture yelloon na ko ñu jox ñu ko Gambia is been left behind in terms of culture and we have to xam nga particles yooyu dañ ko need to put together ñun we have to do liggéey bi dafa bari te let me tell you thing li la mun a isil sa dëkka li mun a contribute sa government nobody knows man how many millions we talking about kon tey lépp li nga xamante ne luy yokka koom-koomi réew la man foog naa government bi should be wise enough to do suñ xoolee suñu dëkkandoor yi Senghor la dooree Senghor dafa ñëw def Douta Seck mu nekk school of music ku ñëw da ngay def état ku ñëw am loo teg ku ñëw am loo teg Ablaye Wade Grand Théâtre ku ñëw am na loo teg Macky Sall xoolal arena mun na kaa am concert or oh, whatever kon tey what are we putting in place for structure kon li caat waxoon ne euh, fii. léeg-léeg fii. feccee lii feccee lii suñu neexee ndeyaat yi ca magal liir yee nekk ci kawam magal yi benn ndey teewu ci te it is very sad if we didn't do that is losing the impact African music is making. the millions African music is making to African countries, Gambia gis a xaalis boobu we are yet to benefit Conte, tey buñ politic, politic right. rek nañ seet gis nga suñu waxee naan xale amuñ xëy xam nga Gambia lu fi raw talent See football team, music I'm in school of music but raw talent we have it ok tey You su ne ne ok as a government Gambian si amuñ here. ñaata Gambian si ñoo bëgg a football ñaata Gambian si ñoo bëgg a music booy nga create structures for football and music ah tay yow ya ngi dimbalé ya ngi employé ci xamuloo because of la lettre ne tay music ñu bari jëlun ko as a career is not recognized as if ne clé la ñuy xëy di dem ci office because of lan ya the high percentage of people doing music they they are not getting what they supposed to get kon tay president should be very wise pour have the music dafa nek a free employment bo xamné ne su putee the structures in place dina employé yu ci bari because gis nañ musicien bi lan la mun a anti music su dee ne government put na in place ñaata at Gambie la woon ni ko daan wax ne Gambie la ak yi daan ñëw tey Sénégal yi jël nañu lépp nit ku nekk sa dëkk nga bàkkoo de true Gambien yee Sénégal bi lu mu am Sénégal la ko yóbbu yaa understand Sénégal bi Sénégal bi laa dimbale ñun man suma yaay sénégalais la but we just have to respect our country and support our own country people inside in it because it's very important Youssou Ndour tey lépp lu am Sénégal la ko dugal te Gambie ni dañ dee wax naan fii la dooree fii la jàngee we have to be wise parce que képp a koo dimbale as a brother or sister to a Gambian ëllëg dina dimbale sa mbokka te si réew bi rek laa des na Gambien si dee xalaatee noonu so from the president up minister of culture that's what we wanted to stand alone Let put structures and support if we didn't do that yaa ngee gën a raise stress yaa ngee gën a raise youth unemployment because du du youth yëpp a mën a am skill du youth yëpp a mën a dédiqué seen ci ja dem jàngi déedéet but music bi neexal naa ñu Gambia natural talent is is is enormous we have it everywhere football kenn kenn kenn kenn xëyu dem school of football kenn xëyu dem school of music but tey fii pour that in place duñ xëj fenn because Gambia dëkk bu ndaw la Jamaica li leen a sobee tey is music dëkk bu ndaw la Gambia overpopulation so we have to be wise di xool ci biti ni moo dawee xool ne suñu dëkk bi day tuuti na suñ put Tell let me tell you one thing if we raise our bass in music industry billaahi walaay i am not dëkk yu bëri ñun mën leen anything. fay music because dañ tuuti nga nañ tuutee pull pour ñu jaral suñu bopp dafa yomba so let's put that in place donc pour ñu defar suñu bopp dafay yomba so dégg nga Adama Barrow message bi ñu ne seen noonu boobu yaa ngi koy dégg ko dégg tamit ñu koy seetaan ñu jottali leen ko mu dimbale suñu mbokki music scenes yi ñu gis ne am last year amoon nañ lu ñuy wax open mic festival bi waaye yàlla dogal na ñun gisuñ waaw open mic festival day suma delloo gannaaw bi salaam ji bokk na suñu ko sos ndax maa ngi fàttali open mic bi moo door waa daan daf ñu fekk a pour ñëw waa salaam ji. waxtaan ak ñun initiative bi gars yi am Salam di ñëw jàpp ci yaa kon open mic li ko taxawal Salam ci ci ci ci ci la bokk daal ba pare am it is not fair as a musician open mic Gambia is growing talents Salam ji mu ngi ci woon 2012 ok open mic is growing talent it is very important ñu gisee artiste yoo xam ne. they are doing good because of music dafa yaatu xam nga nit ki foog nga xijale kii duga next year kële duga kii duga that's very normal in music we all Gambian artists can't be in one open mic loolu amut fenn kon foog ñu give chance to each and everyone and that's very normal and and we always support it though yeah. okay so we should give chance to each other more than ñu gis ne tamit at the same time amoon nañ fi li wax war euh, sa xalaat euh, night award bi music award bi bi fi xewoon mm-hmm. ñu gis am um, ki ñuy wax gisul ñu jokkoo si guddi bi noonu si guddi boobu nag ñun jotuñ a gis si wax sa xalaat mm-hmm. bi ah, waaye si guddi bi ñu gis am um, gisul mu am five awards mm-hmm. mu am um, people choice bi ñu ñu award ko ko at the same time ñu jokkoo am vidéo bi ak yeneen ñetti award yéen euh, ngeen yàgg si music loolu def ay music videos yu xarañ woy lu xarañ right nan ngeen am pour wax si li lu wax sa xalaat ak award yu am um, gisul am loolu di ko rafetlu rek di ko rafetlu bu baax a baax a baax ndax nit ki sa wërsëg rek naa lekk salaam ji bu ñoo door di am award yàgg na kan? kon tey ku mel ni gisul ak keneen ak keneen di am award ji demee noonu dañ ko rafetlu dañ ko rafetlu parce que li moo def dafa nice wax dëgg because of Gambia moving, do do do do do du gisul moo win but Gambia moving because of um everything that we are doing we do it for for the love of Gambia we do it for Gambia kon tey loolu ndami Gambia la yeah ndami Gambia la ba pare tamit lépp is the choice of the people so that we have to respect yeah nit ku nit su liggéey rek jox ko loxo ne no doubt for that for real balaa ñoo dugg feneen balaa ñoo sori ci biir wax bi ma buggoon gaa yi ñu dugg fu mu nekk nii dañoo dugg xam naa weeroo neen out of time waaye dañoo dugg gaa ñu may ñu si seen terebe terebe bi seen um, vidéo es bu gars yi génnee suñu si mayee ñu dugg si biir ma laajte leen tuuti about this uh, terebe terebe. xam ne mooy di brand terebe terebe. ko ko dégga di waa Banjul sa xel dina dellu gannaaw ndax biñ génnee akabila te ñëpp xam ne Lucky Ndongo Banjul la jógee sa xel dafa dellu ci gannaaw am lu mu fàttali kon tey biñ gisee terebe terebe mu nekk loo xam ne ñun dañ juddu di gis ki nga xamante ne mooy Karfa Ndiaye yal na ko yàlla yére mu xaari ko arjana moom muy foyee dat woon terebe terebe original yi Karfa Ndiaye mu ngi ko jëlee ci those days finish yi nga xam ne dañ daan ñëw euh, tourist di stay Atlantic Hotel because terbe terbe Finnish language la Karfanjaay nag ñun tey suñu xamee terbe terbe boobu moom mooy ki ko tasaare moo ñu ko xam loo xam nga musicien dafa sob yàlla def na ñun as a musicien ñu def nii rek am ci idea boo xam ne because Karfanjaay képp ku mu daan tooñee terbe terbe daf ko daan def ak happiness jigéen ñi si daan gën a tooñee loolu sax salaam jël ko gis ne mën nañ ko put in a musical way xam nga terbe ñu define ko as happiness teg ko ci music mu jaar yoon xam nga ñu gërëm ki ko produce di J-Trix nekk ba Sweden di nuy essayé ñoom ñoo def production bu nice boobu noonu ci ci song bi. yow da nga maa jaay gaaw xam nga ne dama laa laaj te question moo tax nga bëgg a summarize yëpp bamtul ma woy bi man woyalaatal ma ko ba pare ñu dugaar si xaw bu la neexee wax lii waaye su ma paree dinañ si dugaar di nga waxaat leneen ak leneen woy bi si boppam laa soxla ba pare ñu duggee si alala liyo eh eh alala liyo oh alala liyo eh eh alala liyo alala liyo eh eh alalio oh yeye jamba jamba alalio eh eh alalio terebe terebe terebe adumanda ye terebe eh ma terebe ayiya terebe terebe terebe adumanda ye terebe wow wawa ma terebe ayiya a terebe terebe terebe nataka kumseda terebe eh ma terebe ayiya terebe eh Terebe terebe Fi c'est Gambian talent An serebe Fitel ma terebe Ayuya Nantanga bul bum seeda gaa ñoo ko wax de si biir clip bi ngeen gis mu nekk ak clip bu nice macha allah ñu dawal si ay waay si bi kenn xamul bu nekk gaa def nañ ko si waaye bente bi moom question bi damay jégal suma doom baay tuuti ma toon si caat caat si biir am woy bi ngeen woy woy bi woy bu mu nekk woy bu rafet woy bu nice ngeen dawal si ay welo def lu nekk nga féete féete mu euh, jeex nag moom coowul dara du la fay <laughs> waaye euh, ñu gis am recent bi ngeen posté seen Facebook bi am di jaajëfal am benn euh, foreign TV bu nekkul di wax lu ngay def ma bëggoon a xam yéen ban connection ngeen am ak DJ Zeka. waaw Zeka Zeka moom soo ko waxee moom ñu ngi fàttaliku démb rek parce que Zeka rek depuis tane mi Unique FM soo Lamine Manga ñu boolee moom parce que ñu bokkoon benn radio bi moom tamit mu doonoon sénégalais boo xam ne dafa respect Gambian music dafa ne xam tamit lan la Gambian music yelloo so mu gis ñu ngee try so mu loof ñu yëpp te nekkul ñu ni rek mbooleem Gambian music buy wëy xam sénégalais dafa laaj koy try so mu loof ñu ñu gis ne kii nu mu dee waxtaan nañu utee naa ñeneen ñu dee ñëw si office bi sax dañuy Adja Salaam di dugg rek moom daf ñu dee advice nice so ñu doon xaritam nag ci loolu Seydina Omar di gën a waxtaan ak moom moj moj moj moj waaw gars yi sax ñoo dee gën a waxtaan bi ko soo xëy na ñoom ñoo gën a jege woon before man xam waaye lépp si benn ndaal gi la woon soo Zeka tamit moom itamit nekkul di bàyyi am na ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi limu seen tur sax soo Zeka tamit mu ngi am yu bëri yu ñoo doxalal outside ba pare tamit slam bi ah, du ne la dama ko bëgg rek kii suma xarit la rek de affaire bi du foofu noonu affaire bi tamit mu ngi mii na tamit soo liggéeyee lu set lu rafet sa xarit sax daf koo gaaw pour génnee ko tamit so tamit ah, Zeka tamit ñu ngi koo gërëm tamit ci side boobu noonu tamit dëgg ñu tamit ñoo gërëm tamit si liggéey bu rafet bu ñu liggéey tamit because of tamit nit ki di la yuuxu tamit di liggéeyuloo xam nga tamit yaa ngi koo gën a delluloo gannaaw rek so ñun dañ believe rek ah, ñun dañ gëm suñu bopp rek si liggéey bi so loolu tax yëpp di feeñ waaw so outside moom salaam di yàgg nañoo toj fekk ñun tukkiwuñ sax suñ musique daf daan dem outside ba nit yi ñu daan wane yéen benn single lañ daan génne sax nit yi duñu wane ah yéen ndax album ngeen génnee so ñun suñ toj toj toj du tey ba pare tamit salaam ji dem laaxu boobu noonu sax ma gënoon la ko wàll loolu rehab la woon rek ñun laawuñ dawuñ toon because of Moussa Afia Ngom bi nga wax noonu si tamir rehab bi la woon buñ nekkoon si mbaar gi so tamit ba pare tamit ñu ngi génne woon tamit benn songo boo nekk affaire yi euh, baag bi nootu baag bi tamit boobu tamit same thing waaye yabaate bi nga mun a wax ne nii si lañ génn daal ne pël waaw takka suñ téere yi génn te ñun jaaxaan taxul ñoo takku jóg waxoon naa la ko soo ñun duñ dee stop soo ñun dem rek soo laay loolu dinañ si tamit bàllu axa tamit suñ faan si xam nga si gëj a dégg gi tamit waaye gëj a dégg gi tamit lu baaxoon na si ñun tamit xam nga. yéen naka ngeen feel bi ngeen toogee nga xam ngeen ngeen bind seen Facebook page bi Saturday si si bon weekend uh, show bi si lañ ko fa play mm. uh, fa di gaa ñooñu ko njëkk a première mm. loolu ngeen bi bind yéen naka ngeen feel bu ngeen toogee gis loolu loolu lan la muy def si seen music carrière bi gis seen music foreign TV ñu koy play waaw yow ko rek because of balaa loolu uh, alhamdulilah la ñoo wax di gërëm yàlla di ak liggéey waaw euh, di ci kontaan tamit euh, di gëm ne tamit ñun ba léegi suñu nomba gi fa mu nekkoon ba léegi mu fa waaye islam yi yàgg nañoo before lii yàgg nañoo génne single muy daw si yeneen réew yi. daw 2006 yeah suñu wiyaa soldiers soldiers ak waa dañ naan toog di ko seetaan fekk Sénégal time boobu ay tri bi ñoo fa ñoo so salaan seen liggéey moom du woon ne tey la mu génn a dem outside ñu yàgg nañ ko di ko def waaw te tamit euh, fii koo fi gis muy try fii koo fi gis muy try koo gis muy liggéey nit gis ko ne ko kaa ñu liggéey su yàppatoon duñ ko gis muy ne ko kaa ñu liggéey comme yow right now nii ma gis la si benn bi rek ne la kaa ñu liggéey soo damaa gis sa dara moo tax ma ne la kaa ñu liggéey soo xale yi dañ xarañ fii si biir dëkk bi waaye support rek leen laaj support bu taal yi soo ñun suñ musique dafa am lum soo mooy mag yu ñoo advice yi ba tëdda suuf moom leen sànga soo sànga boobu noonu yëpp ak tëddaagaay mu ngi ci suñ boppay loolu tax ñun suñ génnee foog nga déglu ko gisuloo yabaate ñi dañ koy yabaate ñi yabaate yabaate yabaate waaye soo dégloo relaxé di nga xam ne ñi am nañ fu ñoo waxee du dul yabaate rek bi ko soo yabaate dafa ëmb lu bëri xam nga waaw. dafa ëmb lu bëri ñu gis si um, seen vidéo mi la mu nekk vidéo um, bi ngeen génnee nii sax mu nekk vidéo bu nice bu wéy loolu kan moo nekk si gannaaw kuy defar loolu ba nice. waaw salaam ji <laughs> salaam ji moom nu ma la ko waxee rek ñun caaxaan taxuñoo takku jóg. xëy na am nañ ay backup yoo xam ne nii like suñu xarit si ñoo xam ne nii soo ñu ngi si crew bi waaw booy caat ah yéen a ngi sut clip ah solo solo nii dina nice de waaw jërëjëf ñu ñu toog dañ dee am ay xelal waaye ñu ni neen ñii mun nañoo toog di bind cuum waaw man mooy Khadyltine lay wéy waaw ñii lay di because of artiste tamit dafa war a nekk like nekkul ne woy rek nga war dee def di bind wéy rek dangaa bind wéy ba pare di xelaat tamit how loolu lañ dee ooyee international artist di bind wéy ba pare di ko sutaale so boobu noonu yow ku laa direct sax su dégloo woy bi sax it's easy pour yoo nga direct ko so ñun loolu daf ñu dee dal dañ dee bindaw suñu tracks ba pare di bindaale script bi script bi clip tamit suñ paree dafa am suñu mag yoo xam ne nii ñu bàyyi dégg a galan ñu dee dem laaj leen gars yi yokk ñuy xel so ñun diisuñ ci bagage yi dañ ci oyof trop. diisuñ ci bagage yi dañ ci oyof. mën naa cee yokk dara because um, comme question bi nga ko laaj um, ñaari vidéo yi ñi ko liggéey di Sahel entertainment ñoom ñoo jaar ci vidéo boobu ñu ngi leen a bu baax because liggéey nañ ci liggéey bu rafet bu jaar yoon bi tax vidéo bi ku ko gis appreciate ko visual boobu dañ ko appreciate lool because of liggéey bi dafa tegu ci yoon. Boubacar terebe terebe bi moom it ki nga xamante ne suñu dafa di Pamatar Wage Wax Media moo ci jaar xam nga mu nekk suñu broda boo xam ne suñu dafa bu bu xarañ boo xam ne mu ngi def lu nice ci videos. so because comme ñun tamit nii lañ mooy liggéeyee because lu nekk ak kiñ kiñ kiñ fiil nekk ok bii kii lañ ko war a jox ak kii lañ ko war a jox because of songs yi bari nañ so foog ñu seet bii kuñ préfère ak whatever yeah. ban ah, ban relationship ngeen am ak Sahel. Sahel Sahel daanaka is like a cousin boo xam ne mooy ki ko sos Boubacar Bathily maa ngi ko nuyu di nuyu jabaram xam nga relationship bu bu bu bu rafet lañ am ñoom. because it's like a brothers and family. it's like a family thing because um, biñ gisee oo déggee suñ song yabaate because yabaate moo woon di first video bi nga liggéey Gambia ñoom ñoom buñ ko déggee dañ dañ ko jël because of dañ appreciate song bi and dañ taxaw pour ne lii ñoom ñoo koo def so comme dañ ñëwoon ba pare boole seen bopp ci slam ji pare pour liggéey loolu loolu was a nice thing really that we appreciate loolu it was a nice thing. and waaw loolu ma doole ci like comme slam ji dañ dee génnee bagage. ba pare nit gis ko fële ni la ak compagnie bi like ko ñëw ne daf koo def so ni lu comme lu gars yi sa xel def ni nekku ne gars yi ko door a def de si slam ji. slam ji before dañ daan génnee ay song so da ngaa gis ne da nga dee toog de gis benn waaye jóg tëggee fële ne la ne dama like seen song bi dama koo sut vidéo clip so foog naa ne soo liggéey liggéey bu refet rek yu so ñu ngeen ñaan yàlla daal yàlla yokk ñu jaamam maa Seydina Omar yokk ñu ko ñëpp moo leen ñuy liggéey waaw waaye daal musique bi daal caaxaan taxu ñoo taxu jóg soo di wax fansi nañ ko fu ñu ko fa téye ni ñu ko fa téye rek ñun ñu ngee ñëw wallahi wallahi ñu di leen leen leen waaw ba pare tamit di leen wan na ne comme Seydina Omar lu mu doon wax si affaire music industry bi comme la comme loo ko doon wax des sorry about Gambian Talents ak open mic laay ah, individual bu téye waaw man maa Seydina Omar ñu toog rek dem tenir fi benn programme ñambax ñambax so man maa Seydina Omar ñu ñu neex jël play on assemble waaye su fekkee ne like government bi ñoo organise benn programme wala ñu ñoo jël open mic si loxo gaay yi xam nga lu ma miin ñoom dinañ mun di toog di seet ne ah Bakau tey dina génn tey benn team Banjul dina génn benn team Sukuta ñu boole léegi léegi ñoo dale ñu foofu lay dem waaye dangaa gis ne ñu ko téye ñoom Exmael ñu leen di leen sant bu baax a baax waaye tamit léegi-léegi ñu toog di dégg si gan si ruum si mbedd yi seen artiste rek lañ denc dama ko dee wax moom sax waagaan si loolu mun ko bi very careful because of gaa dañ dawale seen artiste rek lañ denc so loolu tamit dañ bugg a tamit government bi dugal si seen loxo bu baax a baax a baax ci loolu yes loolu moo loolu moo tax um, yéen seen music um, da ko dee record ak live band wala da ngeen dee dem studio rek eh, affaire si ñu rabaraba ko bëgg waaw xanaa ma bàyyi si dina ma mu wàcc after ma duggaat ci foofu. dina <laughs> xool sama mbubb dafa bëri trop ma doon ci tuuti. parce que ñun ñun ñun suñu liggéey. ñun suñu liggéey mooy ñu la ko si dinaa amal waxee woon rek. waaw ñun caaxaan taxu ñoo takku jóg ñun lu ñoo def tey ñu ngi laaj ne ah ñii de moom ñooy salaam di ñii de moom ah nii nii soo ñun lu ñoo liggéey rek ñu ngi ko jàppee comme international nu président bi di liggéeyee. soo ñun dañoo toog mbébét suñ mbébét suñ ting ba pare binda ko waaw code si ba band si yëpp mu ngi si suñu boppam bi ko so dañu yaroo moom man dama yaroo si taas mba taas bi xam naa ne suma régin taj xam naa fu moo wàcce kii tamit xam naa fu moo wàcce so suñu demee si life band dafa day yombaale naa si dina ma doole ci waaw suñu musique moom comme musique dafa yaatu ba nga xam ne lu ne ci xëcc te lu ci xëcc rek ci mën a def salaam ji daf dee record bi de live band lépp loo xam ne mbalax la ci musique salaam ji jàppal live band da um, any other music boo xam is a fusion ok unless ñu isi uh, guitar pour ñëw life. you understand or marimba mu ñëw life. but su solo, loolu lépp luñ def ci mbalax live band recording la any fusion boo xam a comme ay terebe terebe produce a producer bi a créer beat bi hmm. you understand ñu we hold beat bi hold li ci them. a dem ñu teg vocals this is how it is because lii xew ci live band ak lii lii lii xew ci because band live band bi foog nga train a moom am saison ngeen train ku nekk xam lii boor bi lii la because music dafa am ay pàcc xam nga fii éga wàcc bi la fii dañoo bàyyi lii daw fii lii ak lii la fu boor bu ne li fa xew so recording with a live band is very different ak record with just a beat I understand so daf dee am difference but we record with both ñu fàttali leen rek yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV Pulo Ardo show entertainment show bu leen di ñëwal si Gambian Talents TV ma nekkal fii mooy Hadi soo Pulo jëri borom nag ak ñëw yi ju bala boobu ñu ne soo square waaye tey dama koy ñetteel ndax su ma su ma doom bay laa toogal moo tax foog ma ñettal ko te mm-hmm. dañuy bokk soto rek bon caat la ñun ñooy borom place bi tey moom la entertainment la wax nag affaire si du yomb tey mu tombee Valentine ma di di ziar ñëpp seetaankat yi ñëpp di topp Gambian Talents dina leen wax ne mun ngeen a like suñu Facebook page bi mun ngeen a subscribe si suñu euh, YouTube page bi yéen ndax yéen yéen a ñu tax a jóg man Gambian music move to the next level man I am saying no to um, foreign artist ñëw Gambia nekkaat international artist man foog naa de it is high time mm-hmm. Gambian artist ñu jël leen yóbbu leen si dëkk yooyu gars yi nekk fa ay international artist man gis naa loolu ndax man gis naa Gambia am nañ talents te Gambian talents ñu ngi fii pour génneel leen talent yu Gambia am so moo tax ñu leen ay ñaax ngeen ñuy support dañuy sponsor ñu indil leen lu bëree bëri ngeen subscribe si suñu uh, Euh, num mu tuddati suñu YouTube page bi Gambian Talents lu leen neex rek ñu fee teg mu ñu dellu si waat ci biir am euh, programme bi ma dellu si sama doom bay ma laaj la doom bay yéen di ngeen am am recording studio ngeen am studio. non salaan ji right now lépp moo rek hmm. hmm? dafa dañoo nekk di deal with producers right now. Um, it's something loo xam ne ok will be happening in very soon inshallah, because come artiste bu ne loolu lay sa hmm. te bugguñ a defantu bugguñ a amantu dañ bëgg a am ab proper proper recording studio boo xam ne dina mën a sax record live ba parce loolu mooy mbébét bi but lépp lu slam bi def right now ñu ngi deal with producers yi nga xam ne moom lañu am around pour record ak ñoom because we deal with payment we negotiate and we do what we have to do but right now this is what we doing but mbébét bi ak very soon incha allah am bi noonu music dina taxawal recording studio am incha allah incha allah ñu ngi séntu loolu ah, gars am seen on recording studio boobaa wa naa dafay gën a neex ah, ma gis nag yéen moom jaar ngeen si ñu bëri jaay ngeen Jolof Art Sahel ak yu kenn xamul yéen ñi ñooñu yëpp foofu leen ne Jolof Art ñoom ñoo ñoo yor ñoom daal muy loolu. non yaa ngi ne sax ah, Sahel dide. Sahel was just a video ah was just a video it's not a noo um, xam ne dañ am deal buñ saana ñoom déedéet it was just a video. bu ñu gars yi war a defal and that's it. waaw liggéey ngeen ak gars yi gars yi bu rafet. Mm. mu ngi mel ni comme Pamatar ñoom day day do visuals. ni ñu ñu defalee télé télé vidéo bi ñu fay ko jëm itam loolu la fa demee rek. yaa ngeen fay ko mu nekk lu mm. rafet. foo waaw ngeen liggéey ak ñoom ñu defaral leen vidéo bu nice. Mm-hmm. ngeen uh, génnee ak ak Jollof Arts ñoom it. ngeen fëlee fa fenen ak fenen si ñooñu yëpp seen liggéey yëpp mu nekk liggéey yu xarañ ngeen ban mo foogu leen ne Jolof Art mo ci gëna xarañ daal ñom ñoko yor <laughs> wa ci sa xalaat adama ah, la laaj de ma ne ndax foogu loo ne ñooñu gëna ñoko yor daal foogu lo ko ah, man loolu laa laaj xam nga mënon na la mënon na la delloo ko sum na la ci ci ci man dama laaj de waaw duma la laaj waaw duma la laaj da daf yaa moomee léegi man mo nga tontu ma ndax ñooñu daal foogu ñoo ko yor. non not about ñoo ko yore yoruñ ko di. tey di thing is uh, ñun ñoo ko yor ñun islam bi. ñoo ko yor parce que ñun ñooy suwaat. ñu ñooy def suñu choice. waaw. faram pare ñu ngi ko teg ci suñu liggéey xam nga li tax. Ah. ñun um, ki ñoo liggéeyal is our choice. you understand te um, liggéey bi ni moo demee kooku ñu ñoo ko xam xam nga um, bitti bi ak mbedda bi xam nga it is not what greatest xam nga biin ak wóol xam nga soo ñëpp war nañu du lu leer rek ne affaire bi jamaa la yéen nag ngeen day gis yaakaar ne jamaa la fekk li ci suuf yëpp la dem la xam soo that's the thing daal la xam ne <laughs> di nga jëli propre xaw ma nit ñi. waaw ma doolu si tuuti ñun salaam di level bu ñu dem mu neex because of nuñ mel la dañ saf ba pare ah, duñ mu say sàlli daal fuñ romb xeeñ ni nettitu xesaw ni jaxatu soo ñun ñoo mel noonu daal label bu ñu dem dafa neex te so many times fu mu nekk nii sax am na label yoo xam ne right now ñun ñoo oo sax waaye xam nga rek jaaroon nañ ci label soo dañ bu ko seetaataat suñu boppam bi ko soo ndawuñ ci musique xam nga ne nekk xam nga uh, gaynde bu mag lañ ci ci game gi so mun nañoo explain lot loo xam ne ni yow fekkee loo ko démba loo xam ne ni ñu ko expérience bu fugitives di war a ta amaa problème a penc bi yow fekkee loo ko xam nga lu ma min seen crime googu fekkee loo ko so noonu da ngaa gis ne am nañ expérience démba am expérience tey so loolu tam mag dinañu mun a gis ne eh xale yi su ma am dara de te soo liggéeyee ñoom am dara boo xam ne nii soo ko feneen du génn because of yàllaa ñu ko may so lu mu la may man mënuma koo jël from you ma ne lu mu ma may mënuloo koo jël from me so waaye noonu la waaye ku liggéeyee ñun dafa tàlli ku liggéey ak ñun nag foofu mi sa tey soo ko si pare woon tey mu neex ba raw bu ñëpp gëmal sa bopp rek. ndax xam nga salaan bi bu ma liggéey ak libel dimba libel boobu kenn xamatu woon kenn xamatu ko woon Gambie because génération boobu kenn xamu ko salaan bi dafa ñëw ékkati tur bi ba lépp lépp lépp mu xew kon tey moo tax ma ne la bi ñun la. moo tax yéen su dee da ngeen war a réer seen bopp ni ngeen yàggee seen musique ni yéen foo leen a ñun mënuñoo réet suñ bopp nit ñee ñu mën a réet li tax mooy ba pare music is a career music career du lu ñoo parax paraxee gis nga yàkkamti du su la taxee def dara rek yu gën a féem gis nga gis nga yenn affaire yi xew gis nga dëgga la feeñ ñun dañu ba feeñ dañun Gambien te xam nga ne artiste mun naa génne simbul tey fële open mic nga dégg ndax xam nga ne artiste mun nga def woy tey mu siiw ëllëg Gambia milieu bi dafa tuuti fii pour nga fis pour ñu xam la dafa yomba but being an artist we need to talk about career def lu nice def lu neex yomba na but talking about career xam nga to maintain yourself to give the people liñ soxla loolu loolu mooy li jar a laajte you understand because of su dee ne ok wuyu neex rek la ñoo ut si si si artiste yi bari na fi you understand but let's talk about maintaining the career and giving out xam nga the best out of you loolu moo loolu is important artiste bu nekk war koo sóoraale because of su soo réetee sa bopp you putting yourself into competition and competition bi du lu ñoo wax lu war a dox si sa mind la ngay koo liggéey muy feeñ so nit ñi buñ jaxase seen bopp ci bool boobu is very important hmm. Ah, mune bu nit ñi jaxase lolu it's ah, very very important ah, ñu am fi different façon music ñu gis leen yéen ngeen yaga si music ngeen yaga si torop sax ngeen def ci lu bari ñu gis waaye ben tay ñu gis young artist dugg si eh, si R&B ku nekk commencé di jox sa bopp tour ñu am ñi di wax I am king of afro manding I am the king of mbalax I am the king of the, I am king of lali te yeen yene jitu ñu bari si ñom si biir R&B mm-hmm. ah yen lan ngeen mën wax si ñooñu lan ñoo yen loo leen kenn mënu leen ko loolu nit ku nekk am na sa sañ-sañ ah. without no fear without pressure sa boppaat the mm-hmm. loolu moom. Mm-hmm. bu nekk la ak tolluwaay because of nit ku nekk ni sa xel di ñëw yi nga waxee so and ni sa xel di mooy define yow. exactly sa heeli heeli mooy defaan ñoo yaay kan so loolu yëpp is a choice of an artist pour mu tuddee ko am lii ak lii ak lii bon ñun lu ñu ñor slang dugga music mu bëgg a ci xole nit ñi bëggee ko daajes ko lépp def ñu support ko luñ teg gaay jël that's our ambition waaye pour ne taajul sangam taajul sangam taxu ñoo jóg de après loolu ma doole après ma doole ci tuuti rek xam nga musique yi soo bi si Gambie bi ak bu Sénégal bi dañ utee soo li nga wax noonu eh, ñoo yàgg nañ ci musique bi door xale yi ñëw tamit di door di yuuxu waaw Youssou Ndour dafa yàgg si musique bi di play ñu tuddee ko king of mbalax soo ba jamono tey ñëw ñu koo toolaale ay yenn som artiste di wane ay artiste bi du moroom Youssou Ndour waaye Omar a ngee wane nga seet carrière bi suñ doon war a ceeg carrière bi dañoo crown so moom dinañ gis ne xale yi dañ sàcca ci moom ñëw di taakaan soo ñu ni tamit suñ demee tey ba def yenn yi gis ne gars yi ngi am luy ndaw ñu jël ci ñun di bàkku ne ñoom ñooy ki ngob lii rek dañoo kontaan ci loolu bu baax a baax daal firi suñ boppa comme luñ toogee woy cosaani ngénte gis fataaya nga woy cosaani ngénte bi nit ñu eh, islam yi fataaya nga sàcca nii o oh, nii nii nii loolu yi dañ cee kontaan bi ko sof xarañu ñu ko jubloo xarañu ñu ko mayloo so génération bee laaj loolu da ngaa gis tey ku dóor tey mbala xam tey tey rek yóbbu nañ ko ëppoon may fekk caag moom mu ngi ci gàmbool bi yàgg na fa xam nga lu mu di bégale di yeete xam nga so soo bés tamit dafa xalaat tamit so ñu ñoo xam ne dañ koy yelloo ak ñoo xam ne yelloowuñ ko because gis nañ ne back in the days ñu fi daan toppa président bi di leen ci benn show xam ñun nag nga xam ne ni balaa yaay Yaya Jammeh di toog sax ñun ñu ngi ko yaagaa door xam nga because of ñun 97 96 95 ñu ngi gis fugitives ak masla bi ñu ngi wëy film baa ñu dugg waaye mënuñoo wëy so ba 97 98 ñu am certificate so foog naa ne kooku da ko war a respect si musique bi ni goloon nii xale bu ndaw jóg te wëy nii rek nga ne da nga koo tollaale si kaw mbag yi xam nga lu ma miin so ñun Gambie rek a ni def loolu noonu waaye sénégalais ñoom duñ day def loolu noonu ñoom dañoo nañ jox kii gëdd gi kii toppa si gannaaw waaye fii da ngaa gis xale bu jóg tey rek ñu jël ko boole ko mag bi ne ñoom a bàyyee bu baax a gis ko fa woy dara rek oustaz ne leen eh eh, eh a koo toppat nekkul ne ñoom rek a koo toppa magi diine yi sax ñu ngee toppa musique bi so musique bi is very important su loolu si nit jiitoo rek nga jox ko cër ba pare roy dunduroo biir jërëjëf bu dégg noonu moo ko wax rek man moo ko ma wax ah ban tey yow Thiat mbir mi dégg sa broda bi Tamsir. Tamsir waaw mbir mi dégg. am Tamsir ah ma dégg ñu bëri di ko wax naan dafay féecaa nu muy féecee ñu bëri di wax lu bëri mu bëggoon a xam yow da broda Tamsir est-ce que yii gay. non man suñ famille bi yëpp dañ cee féecaa man man mii sax gars yi wax nañ ma loolu. is ma broda Ismaila sax gars yi wax nañ ko loolu waaw. coow ñun ñun moom fecca mooy suñu live xam nga moom yéen suma beneen sista bi di suuna moom tamit same thing tamit moom suur géwél lañ ko dee ooyee moom itamit biir Congo bi gars dañ oo fi mu former bu ñu fi nekkoon Yaya Jammeh jabar second wife am bi so ñun moom ñoo moom loolu daal xam nga fii tam day fecca dañu ne ay batman góor jigéen nga fecca daan saa ñu ne batman hmm. Sénégalais su feccee ndaga ñu ne ko batman ñun suñu feccee ndaga ñu ne ñu góor jigéen xam nga suñu feccee daan saa ñu ne ñu baat maa xam nga lu ma miin suñu ñu ñuy góor jigéen ñu ñu dee wax ñoo ñu leen feesal Wally bi soo dangaa gis ne soo ñun looloo tax ñun after bi ko si doolin si woy may yaaba leen di lifin ñu ne la xam nga lu ma waaye loolu yëpp soo gisee nit di wax sa affaire xamal ne mu ngee muuf soo demee ba toog ñu ne ah ki mbaxana bi kuul rek yoo xamoon ne yow settings demul waaye loolu kontaan naa ci bu baax a baax. soo da nga bëgg a wax ne daal sa broda Tamsir is not a gay du góor jigéen. ok wa bantee balaa ñëw rapport comme naa we are running out of time nga ngeen ñuy duggal ci ngénte li woyal ñu fi kumbal fi ndax fi dafa gi suñ paré ñu dugg ma laaj leen yenn question seen yenn yi nga xamantene do doo leen ko bëgga a wax way <laughs> di ngeen ko wax té nañ dem bu njëgalee wa koñ gi ci best to tuti waaw waaw lay tollool ay waay ñu aksi uyu si la sargal la ah! lal ba yi ransale tugg yi ci imam ñu na na yib yeeg xali leen yoon wi bàjjen bi ñu ak ne nek di imam ah. ya. dal di ah baj géwél jeftal li rek di xar bi séddaale tranga ji ñep dal di bee céni bégati nañ tranga yu war ci bes bi amna wo yang ngi jolli géwél yi naan maa xam sa eh el imam de ci dara la la la bi ay waay dëgg ci sa ni ngente dëgg dëgg waaw dañu ngente dëgg ta bantax waaw sa ni ngente di nga te waaw dañuy ngente gin ay waay gin gin da gin gitee gintee cere ndawal gin gin da gin gitee gintee cere ndawal waaw bés bi sa bés la yaa xew la yaa moome bi doom ku ko am loo di wax bi doom saay waaye waaye bii doom saa yi fay ko dee wéli daan la naan ku ànd ak moom waaye ku ànd ak moom ah, ku ànd ak moom ko wax tamit tudde na dina famille di li ci yéenante bi ñene me dafay la waaw xorom bu ci si mooy tax mu charismatique dama ah. riis ak saabu gi lekket li dalli mooy suñu cosaan si dalli si yi ah ak paquet bi ba jël jël yow si xale ba naa na ko mooy lu ma wax rek gis nga. dañuy ngénte. ay waay ay waay cosaani ngénte. ay waay rëgg jàpp jàpp dañuy ngénte rëgg gi gi. ay waay cosaani ngénte. gi ku la waay yow mot nga waay. sama nit nga. ay waay moo tax ñu tuddee la ko. sama nit nga. ku la waay yow bat nga waay. sama nit nga. Ah, ah, way moo tax ñu tuddee la ko. sama nit nga. Ah. ay waay ne su gàddati. ay waay. bàyyi xale yi ñu dem tëddee. bés bés yi loolu kon mi su gàddati. waay bàyyi xale yi ñu dem tëddee. dem tëddee. yow su gàddati. ay waay. bàyyi xale yi ñu dem tëddee. waaw. bàyyi xale ñu dënte di You them take As a big man, be responsible and stop the nana. You live the too nasty and stop the drama. Too much in it, pregnancy on the corner. You better watch out and think about the consequence. When funky monkey wanna say hi, don't smile. The want to give you money and destroy your life. Hey, a family man, how could you do a such a thing? Oh, what a disaster, Mr. Child Molester. Ah, for him. why go radol? Eh, dila na kumbala, dila yaka sa taranga. Sa milokan sa janga bulachi sa adina. jëkk jëkk nga nga sama ko mooy li gën sa bopp te xam li gën ci yow mooy li gën ci yow la day yaasal la jël lu gën ci yow du lu gën ci yow mooy ci lu ma yow la yow la kii ndax la rek ngay mujjee réccu rek dawal ah yi yaa su jaada di waaw Gambia baal xale yi ñu dem tëdd. mooy lu ma ko doon waxee rek gis nga. Eh. taas ba tax gi duñ si Moussa Sall soo ñoo mel noonu daal xam nga. léegi dañuy dugg <laughs> si yenn question suñ paree ñu bàyyi leen ngeen defar ñu acapella pour Gambian Talents. Hmm. at the same time defar benn pour am um, Pulo Ardo <laughs> bi nga xamante ne dina ma neex torop. mu bëggoon xam tey nekk volontaire yow jaaxle laay liggéey sax yow moom yow moom yow moom xam naa yo moom tey moom foo nar a tas day bëri. te <laughs> eh, moo tax ma gis lan koy sa Valentine tey. suma yaay laa ko war a am pour Valentine. a na ah, moom ah, ah, nañ ko wax fii kenn déggu ko zéro par saba dina fay caméra bi nga déema nga déema ko rek ma xam kan mooy sa Valentine non suma Valentine I have my own Valentine mu ngi kër te mu ngi tudda Ami Diak Ngom Ami Diak Ngom is my wife I have a wife xam nga nu ma mel. Mm. dama takka jabar te dama loof suma jabar dama ko nopp. waaye man laa wane la bési tey gi nii dama war a am pour valentine na su ma yaay. because ah, of valentine gars dañ ko jàppee ne affaire yi loof la rek it's not a loof sa valentine na sa papa sa xarit nga seet ful kër gi yëpp dina cere wala ngeen dina yaasa wala ganaar ngeen togg ko enjoy soo yaaga naa ko di ko defal suma taj bi suma taas ma taas bi tey moom dama si préféré à maire bi. ah tey maire bi la tey waaye dafay paagu tey. moom dafaa toog rek nga calculé nga ne ko yow nga toog téeméer bi nag kooku laa may. moom la gaari bi mais after naa ko ñu wóyaat. ah amul problème bi lu muy taal moom xam nga yàlla def na ñun dañoo fexe di ko dund saa su ne ndax love is very important moo tax love warut am naxaate su amee naxaate rek foog nga tànn ay bés yoo ko bëgg a waaye ñun comme que our love is very real to me and to precious woman, Fanjala Yaram, Denaba, we've been showing up love each and every day um, because of képp ki nga jël rek fas yéene ko yéeloo guru rek fekk am na lum mu ci yow jar na ko gis nga ne kii pare na pour lekk ak yow suuf pare na pour lekk ak yow ganaar ca kaw hmm. kon tey duñ def dara dul ñaanal ki nga xamne ne suma wife xam nga yoko ko ñaax ci muñ ndax bimu duggé ci kër gëlé légui lu rafet rek la fa wone dafa ñëw di tépi de dafa ñëw di ñaw rek di ñaw rek kon xam nga musicien du jigen bu nekk amul na nekk because ñun dañ doy war ñun we are too much kon suñu yàlla xéewalalee ki nga xamante ne wax dëgg di ko tom line understanding amal nañu ko kon dañoo sant yàlla di gën a ñaan ci yàlla mu gën ñoo bàyyi muslu si seytaane bu baax ndax tamit li ñoo ne cat làmmiñ dafa gaaw xam nga te lépp loo xam ne li cat ak làmmiñ la dañoo ñaan yàlla saa suñu di ko muslu ndax comme ni ma la ko waxee dëgg yàlla ñun dañoo fexe di dund Valentine each and every day comme que xëy na tey mooy bés bi nga xam ne bés boobu mooy bésam. dafa dañ ko defee mu gën a spécial. waaye we we we do show love each and every day but tey moom is just special so dafa extraordinary daal. tey loolu xamee foo jëm dañ doo aada. li ma wax mooy. comme que ma ne la tey dafa spécial wax naa la ne Valentine lu ñoo wane la saa su ne. waaye tey bii dafa spécial. waaw mu mel ni si spécial kon kon tey dafa a jàppoo rek. tey spécial bi. mooy tey dafa war a naaw rek extraordinaire bi ko spécial si foo gis lu spécial rek. Mm. mun nga am VIP. VIP spécial xam nga am na lu ñu expect si VIP spécial boobu kon tey. we just gonna keep it special. Okay. <laughs> daal ñaxtu fasax mu laa wax booram ne ñaxtu fasax. ñaxtu iya. fasax. kon nag muy loolu ñax yi daal nañ ba mu mu sax waaye yéen si seen woy iya, yi iya, yëpp yëpp yëpp yëpp ban mooy si seen best best song ban boy moo leen si gën a neex waaw loolu c'est good question too xam kan nga ñun nyum yi ñun dañoo joobee rek song si yëpp a ñu dee na people beri day wane bii leen bugga bii leen bugga bii leen bugga waaye ñun liggéey because of time we have so many relics yoo xam ne ni génnaguñ depuis 2001 ba léegi so many relics waaye dangaa gis ne like for me man suma side na nga laaj Omar waaye man for me like naa Sugar Daddy bi so much yaay. Sugar Daddy dafa am benn dafa am lu fa nekk daal loolu daf ma dee fàttali lu bari daal so dafa am lu fa dama ko laaj naa <laughs> waaw man um, it's a critical question because comme. nga pick mais being a Gennady that they are difficult because am nga songs yoo xam ne yow def nga ko te te bi nga koo def danga ci gis sa bopp because tam music foog nga gis ci sa bopp nga mun koo def te pour ne bii la wala bële la dina difficult waaye am dinaa try damaa try pour pick benn yee damaa pick benn because of reasons because of lim wax du ma ne defuñ song bu wax dara ba tamit bii dafa am lu mu wax loo xam ne ñun mu ñoo lool trop Gambia which is irregular migration boo xam ne ñun tey Banjul bi ñu jógee dafa wéet because of irregular migration yaa understand kon tey su yàlla defee salaam ji bokk ci benn compilation bi nga xam ne American Embassy def na ko salaam ji def ci benn song tudda eneen sukaabe baati tukulóor la muy youths of today ñu wax ci lu am solo ndax tey ñun dañ ñàkk ay xarit dañ ñàkk ay nit yoo xam ne dañ toog ñoom ñii ay nit yoo xam dañ doon bokk ñoom di lekk ñu dem ci baax bi ñu dee ñu ne na ñaanal ñaanal suuf seede ndax tey it was it wasn't easy xam nga koo xam ne tey yéen a ngi yéen a ngi toog guddi gi yëpp yéen a ko spend instead sax waxu la fi moo dem exactly la daf la dem ah maa ngi dem jos dem fii rek ndekete yoo moom mu woon ci yoon bi dafa yàlla def li moo def kon tey man soo ma ne wóy bi nga xam ne am na lim maa def dinaa ne eneen sukaa bi because of comme liñ ci wax ak réalité bi nga xam ne moom lañ ci wax because of irregular migration affect na Banjul affect na Gambia torop torop torop ndax tey ñun ñëpp bëgg nañ suñu broda yi ku bugg a tukki nga tukki regularly through a flight xam nga waaye tey tubaab bi mayuñu ñu ko because of lan visa bi ñoo aayee lu bari suñu broda yi fippu xam ne this is the only way kon tey am dinaa tànn eneen sukaabe mu nekk song boo xam ne am Tara Halam studio ñoom ñoo ko liggéey mu nekk nice music boo xam ne dañ boole olof ak tukulóor culture dafa neex li ñoo wax ci culture son boobu ku ko déglu di nga gis culture tukulóor bi bi ci nekk ndax woy boobu dafa yombaa dugg xol trop waaw it's a touching song yeah. yeneen sukaaru bi daal moom moom la euh, jël tànn ko mu nekk euh, lu rafet bente yéen euh, slam ji what is next with you what are we expecting fans yi what are they expecting is it a new song an album wala lan what is your next li li li nekk ci fans about to see bari na waaye am na loo xam ne ko announce right now. you understand but dinañ expect ay US di ñëw you understand because of everything is being digitalized right now nit ñi déglootuñ ne dañ seetaan lañ bëgg so moo tax dañoo fexe lépp lu ñëw ñu visualize ko insha allah am na luñ bébétoon waaye yàlla doxalee ni mu bëgg a doxalee waaye insha allah nañ expect something new as soon as possible because we just have to kick it te anything lu ñu leen war a jox ci ay déet au whatever dinañ ci xam dara incha allah. wat pour ay lu bees ak léeg-léeg loolu moom mun naa ñëwaat anytime anytime anytime am. ëllëg ëllëg sax mun naa ñëw waxtu. nga toog sa jàng. Hmm. su génn see rek man dina ma neex man incha allah <laughs> loolu dina ma neex torop ñu ñu nekk di time di run out of time time bi nekkul si suñu wet ma bëggoon ku nekk rek nga joxe sa final words yi suñ paree duñ faate dinañ def nu mu tuddaat yi tuuti a cappella show bi ak Gambian Talents waaye caat ma ngi kees yow wala yow final words waaw final bi comme di leen gërëm rek di kontaan bu baax a baax si invitation mi ngeen ñu jot te ñu ak si fii tey am naa di ñaanal tamit euh, kilifa dëkk yi yëpp ñaanal suñu yaay ñu caabi féetee gannaaw am nga ñu nekk si lopitaan bi euh, ñu jiitu yëpp ñu ngi leen ñaanal fans club bi tamit Banjul ba koy na Brikama Banjul yëpp club Salam yëpp ñu ngi leen di di leen sant di leen wane ni li ngeen ñu dénk ñu ko raw leen ñoo def fuuf waaw di leen gërëm bu baax ñoom may liis nekk bakaw yow jow bis di ko gërëm bu baax a baax dikirim tamit uh, mustik state of mind tamit dikirim yang ñoom Ousmane ñi suñu gars yi yëpp kilifa yëpp am na ñeneen ñoo xam ne dañoo bëgg a ñëw waaye su ma ne ñëpp rek yoo xam nga ne génnewu ma la ci dégg waaw jërëjëf am Soplo ndax yombutoon invitation bi that we truly appreciate wax dëgg wax because xatoon na ak ñun but we have to come because of borom kër gi di Ba maa ngi fàttali ko bi nekké nekkee CMS danaa amin mu nekk programme bu baax bu xarañ ko xarañ mom xarañ xarañteef mom la ñepp di wax because que Pao foo taxawaat di ko gis bir CMS xam nga nekk programme bu baax mu diggé ci famille bu baax. nga dafa gatté nak loolu tam mu la réew foo taxaw da ko gis biir CMS. waaw xam nga daf ci bolé xarañ xam nga mënon nga gatté kenn du la gis wa so xarañ rek nit ñi gis la because ñom seen kër maa ngi fàttali ko bi démé farafé ñu war fa appeler seen kër yaa ñu dalaloon kon Pao aussi sa famille Gambian Talents lim ci nama yal na doon lu lu raw njortam hmm. waat it because he is doing good mu ngee jàppale mu ngee def lu positif soo degloo lu tax Gambie du dem there is a reason lu tax Gambie du dem kon nañ fexe pour moomu change title boobu lu tax Gambie du foog Gambian si change that attitude of why we can't go su gisee loolu rek xam naa ne title bi dina ko change ne Gambie dina dem hmm. kon Gambian si nañ ko ne Gambia dina dem ndax mu mun a cee lu tax Gambia du dem because there is a reason kon suma brother fi nga ko téye foofu la di bëggee ñëpp ñu jël seen time di seetaan suma sister xam nga Fatou Samba moom daal ah macha allah xam naa ne sa valentine bi tey moom mooy loolu. waaw caméraman yëpp ñu ngi di leen di leen di leen a ah, happy valentine today ndax benn jigéen warut a jooy waaye benn jigéen warut a nax góoram. cause is is tout tout play the game du affaire yi benn nit ñaare ko mun a dawal. kon tey bu mu am naxaate ñu ngi leen a ziar bu baax expect leen lu bari ci Salam Ji toppale ñu um, Instagram Salam Ji music toppale ñu Twitter Salam Ji music toppale ñu Facebook Salam Ji de Boom Shakatal incha allah lépp lu xew ci Salam Ji di ngeen ko xam ñu music bi dem leen YouTube ngeen sign in subscribe to our YouTube channel Salam Ji official ngeen seetaan Salam Ji terebe tere moo ci kom moo good music we love you. di am um, guys lan di ki di chat ma wo ko moom mu njëkk wuyu si mu nekk respecté wala yi wax thank you very much for that. waaw ci stam yi nek ci caméra bi nak ding ko figom nak ah bay len lolu nak ne len ko figom bok Fatou <laughs> sama ñu nañ la waay. wa di la gërëm bu baaxa baax. moom di ko sant moom it depuis buñ dugg gis nañ big love bi moom mi tamit di woon ne pas love pa ose tamit ñu ni ñu fi gis tamit sha allah yalla na def jàmm ji gën fee sax ba ñëw gis fi leneen a leneen leneen. waaw yooyu tamit kontaan rek ci yow yooyu tamit tey sa valentine bul na ngoo fay de <laughs> bul na ngoo liggéey de am tey nataali ah. ma xeexoon man <laughs> Gambian Music Sen si ñoo ñoo nekk suma suma ay. valentine bu ko man bu gars yi ñëwee rek. kóol ma kon ah, man sax sa valentine dina neex ndax. Ah. su dee Gambian musicien la. musicien si la. am nga neuf of music of Gambian music la entertain. kon tey yow kenn du la déranger. man kay kenn du la disturb tey dara du ma disturb. su ma gën dem toog kar ko si gars yi. di di di jaajëfal gars islam ji di leen jaajëfal yéen ñi doon seetaan uh, Gambian Talents uh, TV time bi jeex na tak tak tak ñun nekkoon fii si Gambian Talents TV doon seetaan. Um, Pulo Ardo show bu leen fi dee ñëwal man mii di caati yaayam ak baayam di Sow Square nekk si pël si ndey nekk pël si baay man nag ñaawuma ndax lu ma doon di dama koo mun dama dégg pël nee na ko Pulo ko Pulo <laughs> ma ne si Gambian Talents bi nga xamante ne dafa amul dara lu dul def ak bégal leen dab seen i bànne kontaanoo leen yéen ñi ñuy seetaan la lay jaajëfal leen wax ngeen toog ñoo ngeen subscribe si suñu um, YouTube page bi ngeen like suñu Facebook bi ngeen sponsor ñu it ndax ñu mun a dem feneen bëgg a dégg ji di wis ñëpp ay happy Valentine's di nuyu Farsamba di ko jaajëfal moom mi nekkoon si gannaaw caméra bi di nuyu monsieur Diouf ak ñu nekk foofu yëpp biir Amérique jaagin jëf waaye balaa ñuy dem rek di ngeen ñu may ay acapella sa waay dig la lu ne nga foog ne yaa ne ngay dundee yaakaar mu sa yaakaar ale du mbaloo du sa bos du sama sunu la ko ci baatam sa kàddu li nga war a sàmm la. hey sa ceebe waay. i waay bàyyi ko waay. Ah! waaw yow bul ci raay waay jabar ji namm dara waaye gaa yaa ngi cee def dara te wi apprenti ki yaa ni ana ku ci eh, eh, yabaate yabaate ay waay ay waay yabaate yow yow yow yabaate dama ne taxi driver yabaate ma ne mbedd bi yabaate taxi driver yi yabaate yow Gambian Talents yabaate non non non non waay yabaate ma ne Gambian Talents yabaate yow yow yow yow yabaate wallo ma paos di la gërëm di la sant bu baax a baax ma yéen yabaate abe biñ waay enen mu ne yaakaari Pulo ardo nam nam. Hey, why yo? Pulo ardo nam nam. Chili, wawa. Enen sukabe. Hey, eh, pulo ardo. Enen guna yakari jam. Ada bukan si jamono. guna men. Chili. Chile. Orpijeran guna men. Hey, eh, ardo, why yo kan? Ardo, why? Nala. Hey, why yo? Yo pulo ardo gis nala. Gis na fi nga tollu ci salam ji. Hey, why? Ñu lay bege waaw. woy sama ndey ku soo populo ah oh dagul nu la neex nga nice nice ah oh ah ah ndax danga ànd ak ananas ah oh yow ami pulo ardo yow pulo ardo bilaay ami pulo ardo yow pulo ardo gambian talents yow pulo ardo gambian kalen suko ardo yow pulo ardo billaay pulo ardo ku la laal laal ma ki gën dagul nu la neexee ki gën bés bi sa bés la ki dagul nu la neexee ki gën yàqale boojee ki gën dooje boje roojee ki gën kon pulo ardo ki gën fii ci gambian kalen tv ki gën sàcc ki gën kaabe ah. kiñ waay enen mu ne yaakaari jàngo pulo ardo nan nem ay waay yow lo ardo nam nam chili wawa enen sukabe e eh, pulo arno enen ngune yakari jam ana mu xew ci jamono hor pijeran ngur nam men chili hor pijeran ngur nam men e ardo way jogal kan ni ardo way la yo yo pulo ardo gis nala gis na fi nga tollu ci salam ji e eh, way ñu lay bëggé waaw way sama ndey ku soo populo ah oh dagul nu la neexee nice nice ah oh ah ah ndax danga ànd ak ananas ah oh yow ami pulo ardo yow pulo ardo bilaay ami pulo ardo gigin yow pulo ardo gigin yaabe biñ waay enen mu ne yaakaari jàngo pulo ardo nam nam ay waay yow pulo ardo nam nam cili booba enen sukaabe pulo ardo enen ngune yakkaari jam ana mo xew si jamono horpijeeren gurdam men jili horpijeeren gurdam men ey ardo way jogal ñu ardo waay nala waay yobbulu ardo gis naa la gis naa fi nga tollu ci islam ji ey waay ñu lay bëggee waaw woy sama ndey ku soo populo ah oh dagol nu la neexe nice nice ah oh ah ah ndax danga ànd ak ananas ah oh yow ami pulo ardo yow pulo ardo bilaay ami pulo ardo yow pulo ardo